asalaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi dellusiwaat nañ ànd ak comme chaque soir euh, dañ leen gunge euh, ci si nga xam ne mooy seen plateau After Ndogou comme ni ñu ko xamee nag euh, nee naa leen dañ leen gunge ci li nga xam ne ne mooy diggante naafila ak xëdd moment boobu da gis ñu bëri ñoo xam ne ñu ngi seen ëtt ñii ñu ngi seen saal ñii ngi naan zirigu meew ñii ñu ngi naan attaaya ñii ñu ngi lekkantu lekkantu bu ndaw donc ñun nag foofu la daal di profité dugganteeg yéen waxtaan ak da leen di ngeen nag ci benn yoon dama ci ànd ak ñi nga xam ne moom mooy samay rubrique euh, euh, ànd ci ak ki nga xam ne ne aussi moom mooy Good Life Store euh, ñoom ñu ngi laal ci lépp produit boo xam ne jóge na États-Unis d'Amérique ànd si aussi ak ñi nga xam ne ne moom mooy Mobilcom Mobilcom nag ñoom nag lépp luy xeetu électronique rek ñoom ci la daal yëngu ngir indil leen ko ci seen plateau ngeen békk nee leen nag chaque jour dañuy indi loo xam ne daf leen soxal chaque jour dañuy ato bi kat macha allah liñ ci jëlee am na solo mais balaa may dem rejoindre ñi nga xam ne mooy sama gars yi yaan ji damay daal di ànd ki nga xam ne ak euh, damay daal di ànd ak population bi ñu seetaan euh, naafila du jour et on revient sur le plateau. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk yi ñu ngi leen di jaajëfal ci weer wu sell wi nga xam ni moo di shahru ramadan al mubarak juróom-ñetteelu guddi gi mbokk yi ci naafile yi mi ngi nekk ñaari rakka nekk kon benn sëlmal am rek euh, suratul fatiha ak kul huwallahu ahad fukki yoon ak ñaar nga boole ci tamit fukki yoon ak ñaar alam nasa aynaya shawqan wa li فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صل على محمد mbokk téléspectateurs yi comme li ma leen waxoon rek nee naa leen plateau bi saa su ne da leen gunge ah, tout au long de la soirée ah, ba ngeen daal di nelaw wala ba ngeen daal di continuer li nga xam ne moom mooy nuit blanche yi nit di faral di def may ànd ak nag ak euh, équipe bu yànj bi chaque soir euh, comment vous allez vous na si ngeen def. yaay yaay namu naa la. yaa a ci jàmm. maa ngi yow dañoo def rouge tey. waaw comme ni ko waxee rek du yaay sama mag. waaw maa sama mag ah moo tax ñu compatible. dëgg la <laughs> alors Eva. Laïcha nuyu naa la. naw naa la. di nuyu mbokki téléspectateur la 2STV yi ñuy seetaan partout au Sénégal et dans le monde entier. waaw di kontaan tey ci ni mu leen gisee man mu leen gisee la ma leen di naamu. muy namanteeg de ah. noonu la alors Fafa nuyu nañ la. nuyu naa la. ci loolu ci loolu ne. papa lu ngeen nga génn tey. waaw di nuyu téléspectateur de 2STV tey ay weer laa def may def. <laughs> ay weer laa def tey. ay weer nga def tey def tey waaw. dëgg la donc euh, Zeyna euh, la jaune guerrière xam nga moom moom dafa di la Zeyna la guerrière. ah tey foofu nga génn foofu la jaune guerrière la ah, <laughs> ci loo nekk. ça va alhamdulilah. yaa ngi cool. waaye ça va maa ngi nuyu adduna euh, yëpp li ma nekk di seetaan nii nii di nuyu kilifa diine yëpp tamit. Mm-hmm. di nuyu Ahlu Baytilaay. Mm-hmm. di si wax di nuyuwaale sama papa jooju nga xamante moom di Lamine xam naa ne mu ngi toog ci saal di ma seetaan euh, daal di comme li mu wax rek daal di koo xam ne yaa ngi toog seetaan fii. Euh, ki nga xam ñi nga xam ne ne aussi caab euh, dafa féete seen ginnaaw aussi comme ni ko mhm. ñu ngi seetaan li nga xam ne moom mooy after ndogu ndax nag ginnaaw ba naa ne ñun ñoo leen di gunge comme li ma ko waxee donc leen nuyu yéen ñëpp mhm. di leen wax ne émission bi a ko moom mhm. yéen lañ ko jegleel donc ngeen bëggee ci rek ñun loolu lañ ciy ñaar alors sama gars yi comment ça s'est passé la journée d'aujourd'hui neexoon na c'était trop bien mais trop dur pour moi quoi. lu tax loolu. parce que j'avais des choses à faire j'étais avec la grande dame la mhm. grande styliste Mame Fagué Ba ñu nekkoon. Euh, de Fatick. genre yooyu ah, euh, mhm. connaissais pas je l'ai connu aujourd'hui. j'ai découvert plein ma journée aujourd'hui ñu solal ma en tout couleur quoi. si tu mhm. me voyais là. ah tu pensais que benn alpulaar carrément là quoi. <laughs> on a une parisienne sur notre plateau. <laughs> c'est très normal ah oui c'est très normal. et du nuyu waa Paris nga xam dañuy bëgg ci yow. waaw non la non la il faut ñu nuyante ñu baax alors donc xam naa ne du ñu xuus torop euh, dañuy dem daal di seetaan ki nga xam ne moom mooy Yaasidaat parce que xam ngeen ne Yaasidaat moom day ñëw ci plateau bi pour jox ñu quelques conseils euh, yoo xam ne ne dañu soxal soxal ñi nga xam ne mooy mbokku téléspectateur du dëgg voilà donc nañ dem ne ne moom mooy Yaasidaat et on revient tout de suite mbokk jullit yi ñoo ngi leen di ziar bu baax ci seen chahru ramadan al mubaraka di leen ndokkeel ci weer màgg wi di leen xamal ni borom bi subxanahu wa dafa wax ci xadiisul qudsi yu ne assiyaamu lii wa ana ajzi bihi daf na jullit yàlla bi nga xamante ni dafa bàyyi lekk bàyyi naan ngir jëmmi borom bi subxanahu wa taala koor. borom bi subhaanahu wa taala moo koy fayal boppam mu ne ki nga xam ne nag sa lépp jëf ëllëg yow yaa ko moomal sa bopp waaye koor moom borom bi subhaanahu wa taala moo koy fayal boppam te koor day rammu yowmal xiyaamatul akbar ni la julli di rammoo yowmal xiyaamatul akbar noonu la jàng alquran di rammoo yowmal xiyaamatul akbar moo tax borom bi subhaanahu wa taala daf na jullit yi nga xamante ne ñooy woor ëllëg am na bunt boo xamante ne ca àjjana ma nga tudd rayxaan fala la ñuy jaarale jullit yàlla yi nga xamante ne ñooy woor weeru ramadan al mubarak fa tabarakallahu kon ñi leen di ñaanal kooru jàmm ak salaam di leen ñaanal borom bi subhaanahu wa yal nañu booleeg jullit yàlla yi nga xamante ne ñooy jaar ci bunt bu màgg boobu fa tabaarakallah di leen ñaanal di ñaanal ñëpp inchaa allahu di leen jox daja beneen yoon wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wasalaamu aleykum wa rahmatullah donc euh, mbokk téléspectateurs yi gis ngeen ki xam ne moom mooy Yassine Daat donc Yassine Daat moom euh, day joxe ay leçons du jour ci côté li nga xam ne moom la l'islam wax parce que nag dafa baax ah weeru euh, am koo xam ne daf ñu teg ci yoon ah parce que on n'est pas censé tout savoir des il faut koo xam ne daf ñu teg ci yoon dañu wax yenn affaire yi sans pour autant mu metti ndax ñun dañoo ragal lu du dëgg voilà donc sama gars yi xam nga plateau bi plateau waxtaan la plateau nouvelle la plateau indi ay affaire de quoi ki nga xam ne ne moom mooy Barthélémy Diaz dafa amoon yoo xam ne ay jëf yu fi jëfoon mooy euh, dafa ordonné woon ñu dindi lépp loo xam ne mooy panneau publicitaire ah ci secteur yenn secteur yeeg yooyu léegi nag euh, ba loolu xewee ñu daal di ko convoqué pour mu ci mu entendre ko pour dégg euh, mu expliquer gars yi quoi lu tax mu def loolu mm-hmm. mais nag bañ ko convoqué moom demut demut donc loolu nag indi fi polémique euh, presse bi nekk ci jàppal bàyyi dem naag demut maa bañ lu ne mu wax ko lu ne nit ñi wax ko léegi nag comme ñun na xamuñ ci lu bari dañu daal di xuus ak ki nga xam ne ne moom mooy njawar euh, euh, reportage rédaction rédaction 2STV yi mu daal ñoo leeral tuuti rek indi ñu ci li nga xam ne moom mooy ay ay jàngat ci loolu nga xam ne xewoon na ni nga dem seetaan li nga xam moom mooy reportage njawar duma kuy tiit te ragaluma benn yoon kàddu yooyu di kàddu maire bii di Barthélemy Diaz mu xëy tey ci suba jàkkarloo ak taskatu xibaar yi ci gàttal kii di Barthélemy Diaz nee na fas yéenewul wuyu ji convocation sûreté urbaine gannaaw ba mu daanelee ay panneaux publicitaires yu nekkoon foofu ci goxam mu gëm ne moom moo nekk ci yoon. je refuse fu mu yem nag neex je refuse parce que mënuñu nekk ci dëkk nga voté loi. askan fal la conseil municipal ne lii la ñu dogal état approuvé ko sàcc di yuuxu sàccee dama ne fulla ak fayda bu mën sëkk lañ fekk fi ci biir commune bi duma ci xuloo ak kenn duma ma ci xeex ak kenn commissaire Abdoulaye Diop moo ma moo gën a xam kuy Barthélémy Dias xam na du ma ragal te du ma tooñ maire Mermoz Sacré-Cœur yamul foofu tey sax nag dafa fësal ay tuur mu xamal ñu ne nit ñi nag ñooy ñi nga xamante ne dañoo jàppee seen bopp ne ñoom ñoo diw moo tax fay ñu lempo te loolu moom du ko nangu benn yoon. ay doomu diw ngeen ay diw ngeen ba ma xool fu muy mujjee laa wax dëkk fu jaaykatu ndàmbe di fay impôt ana dëkk fu jaaykatu caaf di fay impôt ana dëkk fu nga xam ne jaaykatu salaat di fay impôt ñu koy wéy tuuti ñu nga xam ne ne yàlla dogal ñuy liggéey ay milliards ñu ne ñoom du ñu fay benn impo dani Bougane Gueye nekkoon fii ak benn société ñu koy woy d'accord laaj leen ko lu mu toog ci commune bi yëpp ne leen génnal benn këyit fu mës a fay commune bi dërëm laa wax ne lu ëpp nag dañ la jox sa cër jox la sa gëdd xamoo sa bopp nag ñu xamal la sa bopp ak sa place. Barthélémy Diaz may nag diir bu gàtt ñi nga xam ne ñoo moom ma panneau yooyu nekk ci goxam mu may leen ba àllarba bii di ñëw lu ko mooy panneau yi danañ fekk ji seen moroom yi njëkk a daanu. voilà donc euh, loolu moo nekkoon li nga xam ne moom mooy reportage euh, Njawar ah Njawar nag foofu la ñu demaloon euh, xoolal ne li nga xam ne moom mooy. <laughs> man moom Barthélémy du ma ci nangoo di wax xam nga dafa xaw a tàng te maa ngi ñoo bokk mooy sama mère. guerrier c'est un guerrier ah. Ouais, c'est un guerrier. se bat beaucoup ah. se bat beaucoup c'est un ouais. c'est un bâtard. C'est Mais nag Aïcha man je crois que. Barth peut-être il a il a ses peut-être mi ngi ci ay li nga xamante ne ci ay dëggam la. Mm-hmm. parce que j'ai entendu mi ngi wax ne que peut-être fay ñu impôt moo tax mu mm-hmm. nekk di ko guddi. Mm-hmm. peut-être aussi dafa bëgg a ci développement du pays. parce que aussi impôt dafa nekk lu important ci ci ci dëkk. dëgg donc bu ñu fayoo rek day day. indi kooku day xaw a doy waar. waaye nag nañ ko def ci jàmm rek. comme ni ñu koy waxee woon démb rek ak salaam. ak salaam waxtaan ba jubóo rek. parce que xam ne dañuy jaay gerte jaay mango ñiy jaay cantine kenn ku nekk yaa ngi fay yaa ngi jéem a fay sa impôt pourquoi ñi nga xam ne dañoo am doole euh, duñu fay fay seen impôt donc xam nga c'est pour contribuer au développement du pays exactement donc moom daal am na ay tax euh, kii wut ci loolu mais nag ñun duñ ci xuus loolu dañuy bàyyi rek gars yi ñu jëm ci ko seetlu nga leen en fait Barth bu ñu ko déggee mhm. c'est parce que am na lu ko yëkkati du tëb tëb rek wax mhm. Mhm. bu demee ba tëb aussi c'est pour le Euh, de de comme ni ñu koy waxee. rawaxaat pour le bien ay. koñam de la commune voilà de la commune ma tudd ay koñam laa. ay koñam <laughs> muy impôt dañu ko war a fay. Mm-hmm. bu nekkee da nga samp say panneau liggéey xaar bu dul bu dul jeex. da war a fay impôt. mais Barthélémy Dias c' est boo xam ne c' est exemple. comprendre mm-hmm. mm-hmm. maire lu dëkk la bu ñu ko convoqué il a ses raisons dafa war a dem. yaa dégg wax lu leer nañu parce am na fu ñu ko teg li mu tuwoo da ngay wuyu ji bu nekkee raison. dëgg. voilà ah. donc nag euh, xam naa ne nag du ñu euh, ci ci loolu duñ ci xuus ah duñ ci commentaire trop xam def nañu suñu tuuti commentaire rek bàttali na bu mu ñu fekk ci plateau bi ah ci bëgg daal dolli soo seetloo fii Sénégal dëkku jàmm la dëkku teraanga la aussi pour man waroon na mën a boole ñëpp waxtaan ak ñoom. Mm-hmm. ñu trouver benn solution. Mm-hmm. que mu doxalee ko noonu mu ko doxalee parce que pour man ci man. Mm-hmm. xaw a ñaaw xaw a ñaaw baax na donc Barthélemy euh, bu ma seet si nag bu ma laajtee fu mu dëkk bu ma la ko wax. <laughs> ay góor de. Ah, <laughs> ah. baax na voilà donc nag xam naa ne dañuy daal di continuer ah, ak suñu programme continuer ak suñu rubrique. ni daal di dugg ci rubrique bi nga xam ne ne moom mooy rubrique euh, beauté bi maanaam mbirum yëf sañ sa yeeg yu baax yooyu noonu Eva Sow ñu defal euh, indil tey ci lu baax ci beauté. waaw Aïcha xam nga mode et beauté dafa nekk loo xamante ni c'est un terrain vaste. Mhm. donc comme dafa yaatu. Mhm. tey euh, dëgg la parfois dañuy dem xooli mbedd bi. parfois ñu invité mu ñëw fii ci nit ki ñëw ci plateau bi. mais parfois tam am nañu suñuy astuce ak suñuy fem mhm. yoo xamante ni mën nga ko expliquer nit ñi. sans pour autant nga bouger fi nga toog. dëgg mais ni nga nekk sa biir kër rek pour ñu nekk seen biir kër yi tey ñoom laay waxante. voilà tey dama am samay feem yu sew. boo xamante ni moom euh, li ñuy woowee bicarbonate de sodium de soude. Mhm. bicarbonate de soude en fait bu ñu ko déggee. Mhm. mooy élément bi en fait tu vois c' est ça le bicarbonate de soude. kon yow bicarbonate de soude tey moom laa leen indil tey léegi dama leen wax njëriñu bicarbonate de soude. Mhm. te lépp nag day laal ci beauté de ak propreté. ndax bicarbonate de soude li ñu ci mën a def dafa bëri torop. comme lan par exemple mën nga ci blanchir say dents. bu fekkee yow sa bëñ dafa jaune. wala day faral di jaune. wala ngay naan café lu bari xam nga bu yàggee day am tarte buy nekk sa kaw bëñ. bicarbonate de soude bi da lay dimbali. day tax day day dindee ko carrément. léegi pour ñu dindi pour ñu wane nan lañ koy dindee xaar ma woon leen comment faire. lii ma yore ni brosse la. di brosse à dents la voilà. donc Eva xam ngeen ne moom tout le daf ñuy indi loo xam ne dafa am njëriñ. tey nag bi bicarbonate ay mbir de soude fa la génn tey fu baax foofu. waa gis nga pour dindi li nga xam ne moom mooy blanchissement de dents bi lii brosse à dents la. brosse à dents ma yore bu ñu ko gisee mooy brosse bi nga xam ne te ñëpp xam nañ ko ñu koy utiliser. Mhm. lii pâte dentifrice la. Mhm. boo bëggee utiliser bicarbonate de soude bi pour bëgg dindi say euh, sa bëñ yi. Mhm. pas nag sa bëñ yi weex weex ba benn weex princesse mais boo koy yàgg di utiliser. tout le temps di nga dem ba sa bëñ yi dina weex tàll. bépp tarte bu ci nekk da koy dindi te en plus doo am odeur. pour nga def ko par exemple. Euh, pat bi ngay noonu. voilà pat bi laa jël dajji ko. jël sa pâte dentifrice nga pénétrer ko comme ça nii rek nga def ko. Mm-hmm. comme ça nga appliqué ko ci brosse bi nga appliqué ci brosse bi. bien sûr. Mm-hmm. après nga jël tuuti ci sa bicarbonate de soude. Mm-hmm. boo ci jëlee tuuti. nga def ko ci. ci kaw pat bi ci kaw pat bi. d'accord ça se passe comme ça. léegi soo ko defee. nga def ci ndox. boo ci defee ndox nga commencé brosser say bëñ. nga brosse ko jëm gauche mhm. brosse jëm droite di brosse di yéeg mhm. ak di wàcc léegi boo koy def deux fois par semaine ñu bañ ci exagérer mhm. ñu koy def juste deux fois par semaine dinañuy rendre compte dinañuy gis ni sa bëñ bu yàggee dina am blancheur bu rafet bu ci am dina am éclat bi boo reetaane ñëpp sopp sa reetaan mais bicarbonate de soude bi mënu du loolu rek la mën a def aussi mën na def est xam nga mën na créer déodorant Aïcha Aïcha wan naka la mën a créer déodorant bicarbonate de soude boo ci bëggee actuellement dañu nekk période tàngaay te période tàngaay bi ñu nekk. bu ñu sentir ñu bëri dañuy transpirer lu bëri bëri dañuy ñàkk rek te am na ci ñoo xam ne n'importe quel antitranspirant actuellement ngay gis ci mbedd bi nit ñi di ko jaay te ak antitranspirant yooyu ñuy jaay am na ci yoo xam ne baax na mais am na yoo xamante ne aussi baaxul te ñu bëri surtout chez les femmes mhm. loolu seen problème la dañuy sol yére des femmes mu am corne mhm. wala surtout bu fekkente ni couleur yére bi dafa nekk couleur bu vif léegi pour nga mën a créer mhm. euh, pour nga mën a arrêter sa anti sa transpiration yu métti yooyu da ngay jël bicarbonate bi par exemple sangoo ba pare nga jël sa aisselle yi mooy sa poqataan bi nga fomp ko ba mu wow <laughs> soo ko fompee ba mu wow après nga jël tuuti ci sa bicarbonate tuuti rek doo ci jël lu bëri da nga siy comp tuuti rek nii par exemple mm-hmm. nga jël ko nga def ko sa poqataan bi jël ko boo ko mm-hmm. defee sa poqataan bi après nga xaar pendant mm-hmm. cinq minutes noonu wala nga jël sa benn uppukaay upp ko léegi soo ko uppee ba mu wow. Mhm. ba da ngay sentir day wow léegi su wowee mën nga continuer say activité sol lu la neex def sa parfum bu neex gauche wala droite nga continuer dem et tu vas te rendre compte toute la journée. Mhm. tu peux rester comme ça sans pour autant nga transpirer. doo ñàkk daal doo ñàkk. kon daal bi carbonate bi dañ koy daal di jël euh, appliquer ko au niveau des aisselles maanaam ci pokotaan après nga daal ko ëpp mu wow. léegi nga continuer. <laughs> dara suy a moo moo par exemple tey nga jël sa xaalis dem jënd loo xam bi loo xamante ni. antitranspirant la boo xamante ni mooy loolu. antitranspirant mooy la. mooy loo xam da koy def te doo transpirer déodorant boo xam ne da koy def sa poqataan te pour nga pour nga bañ a ñaq. anti mooy loo xamante ni doo pour nga bañ a ñàkk daal. Mm. anti <laughs> <laughs> faafa yaa bëgg <laughs> voilà c'est ça. mais Aïcha bicarbonate de soude bi loolu rek la mën a def. Mm. donc ak lan leneen la mën a def. bicarbonate de soude bi mën na. ñi nga xamante ne Fafa j'espère que sa daal du camembert. si hmm? <laughs> Fafa xool li fi sol de. gis nga ñooñu nga xamante ne nag seen dàll yi dañuy kams. bicarbonate hmm. de soude bi daf daf leen fi nekkal. Hmm. ndax bicarbonate bu fekkee sa daal day camembert. da ngay du boo ko bay boo bañee dàll bi camembert da ngay jël dàll bi. nga jël ci bicarbonate bi par exemple. mën nga ci tibb rek lu toll nii. cuillère à café. nga sotti ko ci biir nga sotti ko ci biir dàll bi. ba xam nga daal bi comme nii lay taxawee ni nga juutal ko mu egg ba ci biir. Mm-hmm. ti vois nga bàyyi ko noonu soogay sol sa daal dàll. Mm-hmm. tu vois bicarbonate boobu day protéger sa tànk day protéger sa dàll ba tax na dàll bi du xeeñ du camembert. maanaam daal day def effet bi xam ne ne moom lay def au niveau des aisselles mooy débloquer lépp euh, nga xam ne ne soo ko solee sa biir dàll euh, xam nga saa dàll bi li koy def ñàkk bay def muy camembert loolu lay def moo tax euh, nga xam ne ne dàll bi mais mais Eva ah, nag am na ñoo xam te ne dañuy judduwaale ak émail bu jaune mhm. boo xam te ne émail bi c'est naturel du am émail bu weex émail bu jaune la ñuy am mhm. ñooñu bu ñuy brosse ak bicarbonate bi est-ce que ça va aller judduwaale ak émail bu jaune je pense pas que ça existe existe pour man. Mhm. li ma xalaat ah. nit ki pour man mënoo judduwaale sa dentition jaune. Mhm. non non pas jaune jaune jaune mais émail boo xam te ne weexul carrément quoi. mais bicarbonate bi ça n'enlève pas l'émail seulement boo ci exagéré wul. Mhm. bu fekkee da nga ci def tout le temps tout le temps tout le temps a kut kut sa dent blanc euh, weertàll mm-hmm. su boobaa mën na dindi sa émail ah, mais daf lay jàppale day tax comme par exemple ni ñu naan la del soccu pour sa bëñ di set mm-hmm. bi ko bi noonu la lay jàppale comme ça day tax sa bëñ day weex da am blancheur mm-hmm. parce que boo gisee ñu bëri ñu utiliser pâte dentifrice pour loolu la pour seen bëñ yi mën a set seen gémmiñ mën a set voilà pour ñu am éclat ah, effectivement eh, du ci pâte dentifrice du ci dara loolu ci ndox bi la. loolu na koo dindi bicarbonate xanaa mën na dara ci ndox. ah d'après liñ ma jàngal waxuñu ma mën na ko dindi mais dinaa laajaat encore léegi su ma amee ay réponses dinaa la ko indi. exactement donc Aïcha yaa mun foofu tamit. Ah, bicarbonate ba tey dañ ciy suux dem. Mm-hmm. pour wax leen ay bienfaits am ngeen xam ni mu bëree. kon am na njëriñ. am na njëriñ torop mm-hmm. est-ce que xam nga bicarbonate mën na nettoyer mën na dindi des taches. Mm-hmm. yoo xamante ne par exemple nga am sa benn produit mooy genre spray yooyu nga xam moom la ñuy soit raxasee loxo. wala ndab wala du genre nga am ci boo xam dafa am tarte mu dëgër mm-hmm. wala comme genre meuble mu am yenn tache yi nga bëgg ko ci dindi da ngay jël bouteille bi moitié bi mm-hmm. nga dindi ko jël vinaigre mm-hmm. vinaigre balsamique bi ñuy toggee nga jël ci lu toll ni kaasu ataaya par exemple nga sotti ko ci boo ko ci sottee def ci jël sa benn cuillère à café bu sa euh, bicarbonate à soude nga dugal ko ci nga remuer ko di koy spray boo ko sprayee nettoyer tu vas te rendre compte carrément que day dindi lépp loo xamante ni parce que produit chimique la mhm. boo xoolee vinaigre dafa am acide mhm. Mhm. bicarbonate aussi dafa am chimique donc ñoom ñaar boo leen relier ça euh, mën na def loo xamante ni lu extraordinaire la d'accord léegi nag euh, man li ma la bëgg a laaj par exemple euh, parce que soo waxee produit chimique la am na tuuti chimique ci biir soo ko defee loolu déjà moom mu ngi dissoudre li nga xam ne moom mooy saleté yi donc soo ko defee de tes aisselles amul benn effet secondaire. am effet benn inconvénient en fait c' moom la wax naan déodorant sans danger. d' moom mën nga ci créer déodorant sans danger et tu seras toujours en bonne santé. voilà donc euh, dégg ngeen li xam ne moom la ñu évasion indiloon euh, vraiment c' très intéressant et très important ci li ñu indi tey. Euh, ah, pour wane pour finir. benn bu ndaw boo mhm. xamante ne toujours si bicarbonate bi la. Mhm. ñi nga xam ne dañuy faral di am problème rhumatisme. Mhm. ñi nga xam traumatisme ñu liggéey tey ba wàcc ñu jël seen ñu jël benn bool wala benn paan demi kii noonu def ci ndox buñ ci defee ndox ñu jël ci bicarbonate bi lu toll ni aussi deux wala benn cuillère à café ñu def ko ci mais ndox bi day cedd du tàng trop nga jël sa tànk bi xooj ko ci pendant 15 minutes boo ko dindee da ngay sentir da ngay am sa tànk day apaisé wu mm, douleur bi day wàññeeku bu baax a baax mm-hmm. te da nekk ci jaam ok ah, kon ko waa jëndee jar de ah. mm-hmm. nga lim fi lim yëpp <laughs> xam nga mode ak beauté moom dafa bëri ay feem mm-hmm. roq bu nekk mën nañ fa génn tey astuce boobu donc fu nekk lay dugg ah lu nekk lay indi sur le plateau mën na dem def reportage comme aussi mën na ñëw fi sur le plateau indi ñooy astuce euh, ci la bokk ndax bi kaawa naan mi dégg ngeen li mu ci wax yëpp def naa soo ko notee euh, yéen di ngeen ko jëfandikoo te di ngeen ci gis njëriñ voilà donc nag euh, Eva suñu jógee ci Eva dañuy continuer ci ki nga xam ne ne moom mooy Zeyna la guerrière <laughs> Zeyna la guerrière moom xam nga daf may neex may wax Zeyna la déjà moom nee na démb noonu lañ ko doon tuddee nekk Zeyna la guerrière voilà donc la guerrière Zeyna uh-huh. te lan nga ñu indil ci monde du sport d' accord mm. tey nag est-ce a noppalu comme par exemple euh, yi ma doon dem tey génn ma dem ma fenn. Mm-hmm. damaa ñëw rek toog. Mm-hmm. Euh, sama càmmiñ di baax jooju di Modou Mbaye. Mm-hmm. Euh, moom a doxantul rek sama gaa yi xam temps yi am na lu xew. luy bës si dëkk bi. dëgg la muy kan ak kan Bombardier ak. kii di Modou loo ci loolu laa bëgg rek ñu xuus si dem seetaani élément bi dellu si waxtu plateau bi. ay jokkoon ñu dem seetaani élément boobu. d' accord. Lo jàpp bi muy dugg ci làmb kenn xalaatul woon ni dina yegg si fii du ci taxawaayam du ci jëmmam du ci dooleem waaye jomam mun na koo may lu ne mu jóge ci dëkk bu mag boobu ñuy wax Parcelles Assainies ñaari yoon la ko reporter bu mag bi teg bët tuddee ko xarañ mu wane mu wane xareñam ci ay moroomam ba dugg ci cour des grands daan Issa Pouye Paul Maurice Papa Balla Diouf Tafa Boy Bambara match nul ak Lac de Guiers daan Gris ci ay pénalité mu gën a wane boppam ci bis boobu keroog bi nu ko booleeg sotu Samba Xoyaan bi mu bëreeg moom bëre bu mitti daan ko jëlu bu làmb dootul fàtte Modou dugg na foo xam ni làmb foogul woon ni dina fa yegg si muy le sommet mu ñëw nag fekk fa ku ñu naan P52 borom guddi guddi nguur ndax dina ko may mu toog le 25 juillet ci lay leer ci stade Demba Diop. Bombardier kenn du ko seen di laajte ana mbër mi. ci taxawaayam ci doxinam ci cawarteem ak ci xadaram bi muy dugg ci làmb doon xale ñu xàmmee ko benn slogan mu naan guddi guddi mbuur ñëw ndakaaru daan champion yi fi nekkoon ku ci mel ni Zallo Manga 3 dem si yàlla Alioune Seye Moustapha Gueye Tyson ak Ibou Ndafa wane boppam defit lu mbër musta def muy doon roi des arènes ñaari yoon bi mu koy njëkk doon mi ngi ko nangoo ci Mohamed Ndao Tyson nekkoon bés boo xam ni kenn du ko fàtte ci làmb mi ngi ko ñàqit ci kanamu doomu baasul bi Yaxya Jóob Yékini Bombardier jóge ci loolu traversé désert bu tar carrière nekk en péripétie maanaam di daan ak di daanu ñii sax daan ko woowee dollar la mu ñëwaat wane boppam ci kanamu doomu duubal lees bi Balla Gaye numéro 2 nangu couronam bi nga xamante ni moom la yoroon tooga ci kaw donkaasi gi moom Bombardier waaye le 25 suba teel production ñëw boole ko xale boo xamante ni ñu ngi koy woowee xarañ loo ndax bu la 25 xarañ dina toog ci donkaasi gi loolu ca bis ba lay leer Subatel jóg na ca. Zeyna mi euh, nga fi indi woon tey. waaw laa leen indi loon euh, mhm. parce que soo xoolee kii di Modou Lo ci jaar-jaaram. Mhm. xam naa ni ñëpp kontaan nañ ci. may tamit nga dellu si euh, kii nga xamante ni mooy Bombardier tamit si jaar-jaaram. Mhm. yéen tamit xam naa ni tamit kontaan ngeen ci. parce que ñoom ñaar ñëpp tamit ñu am jom lañu. waaw ñu am jom lañu parce que commentaire comme commentaire la Modou Lo gën a parcelle boobu jooju xamante ne nii macha allah ñi ngi xam nañ ni. doone làmb rek da joxe ba mu mat. wax dëgg neex yàlla Bombardier tamit noonu. li ma leen waxoon rek moom lay dellu si waat xam naa ne combat bu nar a neexee ngi noonu. le 25 juillet le 25 juillet. xam naa ne naka nit ñëpp toog xaar. ndax mm. combat boobu Modou Lo rek. Mm. comme li ma leen waxoon keroog ak mm. Bomba Dio rek. Ah, combat du ko dàq. du ko <laughs> xam nga combat bii nii dama ci xaw a tiit. dama ci ragal ak ah, kenn en ah, fait. dafa am dina am seen benn xarit boo xam ne fan si Modou Lo la gis nga dernier combat Modou Lo ak Balla Gaye. toujours dafa xëm. pour ma yëkkati ko problème la. Fleur mbay dafa bëgg a Modou Lo ah ba du ko gëmee je te pour jour ba mënu ma ko yëkkati ndax mu ngi def gauche di def droite dañ ma jàppale pour ma yëkkati nga bi Modou Lo moom rek laa ragal actuellement nag donc fais gaffe leur <laughs> voilà euh, Fafa yow lan ngay wax ci 25 bi 25 juillet ah dina doy waar de dama xam ne mbëri for yi ma leen gisee man moo ma étonné <laughs> non forme lañu andi non en plus dañoo ku ci nekk combat bi da nga koo jël def ko sa yëfu bopp daal maanaam Modou Lo dafa jël yëf yi def ko yëfam mm-hmm. Bombardier daf ko yëfam. kon affaire bi daal man jaaxal ma fu mu nekk nii daal affaire bi niveau bi yéeg na trop trop trop trop trop. te nag euh, comme ni nga ci xam rek euh, mm-hmm. parce que ñaari dëkkuwaay la ah, mbuur ah, mbuur géej ak yi nga xam ne mm-hmm. moom mooy parcelle mm-hmm. donc nag euh, déjà mbuur moom commune la département la donc xam man dafa laa jóge ah, donc guddi guddi mbuur boobu noonu man dama ci daal di bokk <laughs> di nuyaale sama rakk jooju Mamadou Ndiaye nekk ca mbuur ak sama tonton Salif Tine ñoom ñi ngi ca mbuur rond point Salif fa lañ dëkk na donc kooku parce que tamit ci mbokk dina metti parce que nag uh-huh. bombardier ah mooy roi des arènes nag de daaw la cat te Modou tamit ah, ah xale bu am jom la tamit mm. xam naa ne tamit moom tamit du ko bàyyi kii de dina xaw a métti mais Fafa li nga wax ah, ah, mm. am solo parce que nee na mm. euh, que ne Bombardier moom déjà dafa yor euh, nguur mi toog ci nguur mi te euh, ki nga xam ne moom mooy Modou Lo dafa soxla affaire bi waaw day xale boo xam ne mm-hmm. lu ne ci biir gaynde sax moom da koy jëli Modou Lo noonu la mel lu ne ci biir gaynde Modou Lo ñemee naa xuus dem jëli ko fa ragalul dara fit kese la te Bombardier dafa dafa nekk mag moo xam ne ah. gone du ko ruux de déedéet <laughs> déedéet tamit déedéet moo bombardier bombardier xale du jël ci moom dara de dafa nekk dégg ne faaj toog moom yor yëfam mm. naan na gone ñoo jël ko mën loo nekk gone goo xam ne moom it ñëwee naa jël lu ne ci mag <laughs> kon nag ñu xool kan moo koy joxe kii da koy wala kii da koy jël xëccoo la de eh, donc bu ñu fàttali que c'est avec la bu nga xam ne Makhtar Diop moo defar lamb bi Makhtar Diop bi nga xam ne Faris te pire la mm-hmm. def na lu ne Sénégal artistes yi da doon jël di yóbbu sa <laughs> nit. non Fafa dama koo xam sama xarit la. en bi dina mel ni sankoron ko ba ca bàjj. <laughs> maa koy commencé uh-huh. moom day day rek. man loolu ko tuddee. Mm-hmm. day fi ñëw fekk la nga yor sa roi des arènes. Mm-hmm. mu ñëw nangu ko ci yow moo tax ma wóolu Modou Lo te xam ne Bombardier affaire bi yàgg ci loxo. Mm-hmm. non si parce que <laughs> oui ma man faruma de non faruma de damay expliquer juste en fait moom façon de faire ah. moom da ngay gagné mu ñëw foqati ko ci yow. donc mm. keneen Modou Lo bu ñëw da koy jëlaat ci moom rek. waaw kese après mu dem wutiwaat ma euh, benn nijaay bu doon wax loolu mm. nee na. Euh, kii de xarañ loo macha allah yàlla ko yàlla fal cat. Mm. Euh, du dara dañuy sa di dire waxtaan la rek moo tax ñuy wax nee na bés bu yàlla mayee mbir mi mu téye ko ci loxo mu téye ko rek moom xarañ mm-hmm. ah nee na nit bu koy jël ci moom dina jafe trop. dina jafe ngeen bu wax ko récupéré ko ba pare récupéré ko <laughs> après la. après la ngeen di wax <laughs> bu ko jëlee ngeen di wax. mais man récupéré gu ko te ki ko yor. dafa nekk dafa nekk koo xam ne. waaye nekkul ku nekkee jëli fii ci moom nag. xam nga kan la daan. xam nga kan la daan kii xam nga kan la daan kii nii. Balla Gaye 2. Ah, ci daan ñëpp. ah, ah moo tax na ngeen da ngeen moom mooy combat bi ñuy ay waajal. nee naa leen nag mu ngi koy waajal bitim réew aussi baax a baax a baax. parce que 25 juillet day day tombe ñu nekk ci vacances yi en pleine vacances mm-hmm. donc vacances aussi déjà ils sont là ñu ngi ñëw mhm. ñi nga xam ne tëj nañu egsi nañu ñi nga xam ne aussi dañu jël congé mhm. ils en profitent pour ñëw mhm. donc combat bi dafa doon combat mondial ah a ko nar a teewee euh, donc 2 euh, nag fu nekk lay diffuser fu nekk lay émettre donc nag euh, fu këpp foo rek ñëpp foo rek di ko seetaan ci kattanu yàlla le juillet boobu te Fafa moo ci nar a nekk ak Bekaay Mbaye <laughs> alaaj Bekaay Mbaye ci biir <laughs> ci biir voilà donc nag sama gars il faut ma bàyyi leen benn 5 minutes ah, wuti dërëm ah, am na <laughs> voilà donc euh, ñu dem seetaan benn page de pub et on revient avec la boutique Jusqu'au juillet, Orange double le volume de tous vos passes Internet. composez le dièse 1 2 et profitez de deux fois plus d'internet au même prix pour surfer encore plus longtemps sur le meilleur réseau 3G+ du Sénégal. Ramadan Moubarak. Le partage change avec Orange, la vie change avec Orange. Offre valable jusqu'au тебя самопобима Таму Самелю каму майдане Сано яй мамай бегло Аджа Аджа самопобима Gënal li ci xeet xeet bi neex a neex li ci caf ko bët bi salit loo jàmm sama ndekki bër aja mëne fu ne nëkkos yokku cafkaaf baaral marine doreel booy lakk safal sàppali marineel dooreel wala yokkal cafka doomu Adja 100% naturel 100% épice di leen di gunge ci seen bépp xeetu togg. Adja safal donc mbokk téléspectateurs yi euh, nee naa leen yéen ngi seen plateau after ndogu after ndogu nag euh, ginnaaw ba ñu amee plateau ba pare da ngeen am li nga xam ne moom mooy boutique boutique bi nag euh, du dara lu dul ay partenaires yoo xam ne dañ fay nekk ngir bégal leen ngir présenter leen seen i produits yi ngeen ngeen ngeen ngeen ko utiliser ci seen kër ak foo leen mënti nekk donc ki nga xam ne moom laa jàkkaarloo moom mooy waa Patisen Patisen comme li ma leen di wax chaque jour moom mooy number one ci agroalimentaire fii ci Sénégal donc ki xam ne moom mooy Patisen nag gis ngeen moom dafa ay bouillon bouillon yi mooy ki nga xam ne moom mooy ami moom mooy aja moom mooy dolli am li nga xam ne aussi moom mooy vinaigre vinaigre yaa ngi nii aja mooy gaam aja bi am li nga xam ne ne moom mooy kangu kangu jus bi parce que kangu jus bi moom it euh, dafay daal di neex ndax nee naa leen am na parfum yu bëri ci jus kangu am na aja beurre bi nga xam ne ne mooy beurre à tartiner am na chocopin chocopin moom pâte à tartiner la maanaam chocolat la am na li nga xam ne aussi moom mooy chocolion aussi moom it pâte à tartiner la ak li nga xam ne ne aussi moom mooy kangu euh, euh, kangu nga xam ne moo koy defee boisson chaude yeeg yooyu kangu nga koy defaree mais tey nag dama bëgg ñu waxtaan ci benn produit pâtisserie produit bi ñu waxtaanee tey muy kangu café donc kangu euh, café nag moom defe naa yéen ñëpp xam ngeen ko mais dama leen daal di bantulwaat tuuti rek li nga xam ne ne moom mooy kangu kafe kangu café nag euh, café en poudre la bu ñu condition conditionné ci ay bocal euh, bocal yooyu tax ñu def ko ci c'est pour garder le maximum d'arôme bi nga xam ne ne am na ci biir kangu café moom nag li ma gën a neex ci kangu kafe mooy dafa baax dafa riche en antioxydant antioxydant nag kangu café moom da ciy riche ba pare day lu contre le vieillissement des cellules cellules soo ko déggee mooy cellules yi nga xam ne moo nekk sa biir yaram kangu euh, kafe da koy conserver ba pare lutter contre le vieillissement ci cellules yooyu noonu ba pare li ci gën a neex mooy kangu kafe moom euh, day lutter aussi contre la constipation maanaam tey noonu soo dogee ba pare nga xaw a lekk ab njuufeen la da ngay lekk a lekk ba sa biir bi neewi euh, nga daal di am li nga xam ne moom mooy constipation soo naanee café bi café kangu bi macha allah di nga gis ne ne sa biir bi dina xaw a commencé di laajte tuuti dina commencé bàyyi di nga mën a constipation daal du la gaaw a du la gaaw a sooy naan euh, café Congo donc café Congo nag il existe en quatre formats quatre formats mooy maanaam dafa nekk ci euh, ñenti façon bocal donc c'est-à-dire que am na boo xam ne ne 200 euh, grammes la ma bocalu 200 grammes bi am na boo xam ne ne 100 grammes la maanaam bocalu 100 bi am na aussi boo xam ne ne 50 grammes la am na aussi bi nga xam ne moom mooy stigu 2 grammes bi ah donc stig bi mooy li nga moom ngeen gis ni moo nekk ni stig baa ngi ni donc moom 2 grammes kese la donc ma répété ko bamtu ko am na bi nga xam ne ne moom mooy 200 grammes am na bi nga xam ne ne moom mooy 100 grammes am na aussi 50 grammes élastique de 2 grammes donc yii may wax nii dama bëgg ngeen téye ko bu baax ndax ci kanam euh, damay daal di ubbi téléphone te su ma ubbee téléphone yi il faut ngeen woote pour mën a wax li ma xam ne moom laa wax ni euh, pour ma mën leen offrir ci cadeau yi pâtissière di maye muy maanaam pañandogu yi di maanaam li nga xam ne moom mooy euh, paan yi di lave-mains yi ak li nga xam ne mooy siwo yi donc euh, loolu moom la Patisen indil tey fii muy café Kango donc vraiment c'est riche en antioxydants ba pare day lutter contre li nga xam ne moom mooy vieillissement cellulaire parce que aussi nit dafa daane sooy jëfandikoo produit wala sooy lekk produit war nga xam li nga xam ne moom la produit boobu di def ci yaram donc café Kango bi déjà il est riche en antioxydants dina lutter li nga xam ne moom mooy euh, cellule vieillissement des cellules yi ba pare dina gën a conserver sa cellule yaram ba pare nag di lutter li nga xam ne mooy contre la constipation maanaam seere ci gàttal donc day day lutter contre seere bi constipation pour ñu déggu li nga xam ne moom mooy constipation donc tey moom euh, ci kàngu laa bëgg ñu waxtaan ñu kaf ci ree ci donc yéen dama leen di xaar après ngeen daal di dugg en direct ngeen wax ma li nga xam ne ne moom mooy question yi ma leen di posé la première question mooy euh, lan moo gën a yan couleur moo gën a fës ci kangu café donc ban couleur moo gën a fës ci café kangu donc ngeen limal ma euh, couleur yi gën a fës yi euh, ba pare ngeen wax ma ñaata format moo am ci café Kango maanaam c'est une gamme donc gamme boobu ñaata format moo ci am euh, bi nga xam ne moom mooy stick bi stick bu ndaw bi moom ñaata lay jar ci biir boutique bi soo demee boutique wala foo mënti dem euh, ñu commercialiser li nga xam ne moom mooy café kangu ñaata la fay jar donc question yooyu noonu soo leen nga xamee euh, dangeen daal di dugg à l'antenne incha allah soo leen daal di gagné rek ma jox leen sama pañe yu yanj yi pañe yi nag tubaarkaala nee naa leen toute la gamme de pâtisserie pâtisserie lépp lu mun a defar ci marque alimentaire rek mu ngi fii aliment yëpp a ngi fii macha allah muy café muy beurre muy bouillon bouillon muy vinaigre ah, ak jus yeeg yëpp mu ngi ci biir euh, panier bi pañe bu riche macha allah donc woote leen soo leen wootee rek ngeen daal di mën a gañe ci li nga xam ne ne moom mooy euh, panier yu rafet yi ak sama siwo yeeg sama paan yeeg li euh, nga xam ne ne moom la Patisen di offrir donc su ma jógee ci ki nga xam ne moom mooy Patisen damay dellu ki nga xam sama gauche ma daal di ñëw ci waa Mobilecom Mobilcom nag tey dañuy daal di waxtaanee euh, côté euh, li nga xam ne moom mooy tablette yi parce que Mobilcom daf leen indil ay nouveauté mooy maanaam tablette 4G su ma waxee tablette 4G mooy yi jàkkaarloog yéen. am na bu nga xam ne moom mooy 10 bi am na bu nga xam ne aussi moom mooy 8 pouces bi donc euh, ñii macha allah 4G la te cherul dara cherul dara donc yéen soo leen duggee su doon jar euh, ci boutique muy jar ay 160 000 wala 180 000 donc bi en boutique ñu ngi koy jaayee 180 euh, 000 donc soo leen wootee man dinaa leen ko jaayee 130 000. ah loolu neex na donc 180 000 la 10 pouces bi di jar en boutique soo leen wootee fii ci plateau After Ndogou man dinaa leen ko jaayee bi nga xam ne ne euh, moom mooy 8 euh, pouces bi moom mu ngi jar en boutique 160 euh, 000 donc 160 000 su jar boutique man soo leen wotee fii dinaa leen ko jaayee 110 000 xanaa loolu neex 160 000 ba 110 000 maanaam yoo wàññi naa ci 50 000 francs yoo xam ne ne da ngay sa salle yor sa télécommande wala nga yor sa sa téléphone di composer numéro service commercial bi nga daal di dugg soo duggee rek ci kàttanu yàlla incha allah soo bëggee jënd dinaa la jaay li nga xam ne ne moom mooy tablette yu yanj yi 4G ah 4 cest c'est-à-dire que am na réseau 3G am na réseau 2G mais bii réseau 4G la maanaam lëpp loo xam ne day gaaw ci connexion day gaaw ci lépp loo xam ne yaa ngi ko bëgg liggéey ci tablette bi tablette yi da ciy gaaw donc ñëpp xam nañ lan mooy 4G à part aussi am ngeen li nga xam ne ne moom mooy ordinateur portable euh, démontable yi mooy maanaam deux ans yi moo nekk ni macha allah bii moom mooy acer bi donc nee ordinateur portable yi day nekk li nga xam ne moom mooy nekk li nga xam moom mooy tablette donc maanaam soo fekkee ne yow tablette ba la ci intéressé mën nga koo jël di utiliser tablette bi su fekkee ne ne ordinateur ba la intéressé mën nga koo li nga xam ne moom mooy monté waat mu nekk ordinateur portable euh, li nga xam ne ne aussi euh, moom mooy euh, disque dur 1 tera disque dur 1 tera nag defe naa ne moom jéggi na dayoo parce que disque dur 1 tera mën nga cee def lu la neex 1 tera mën nga ci def lu la neex te 1 tera bi aussi ñu ngi koy mayee fii genre may la rek ah su ko jaayee mais 30 000 laa koy jaayee xam nañ ñu disque dur 1 di jar en boutique Euh, after ndogu bi fii ci biir boutique bi maa leen koy jaayee 30 euh, 000 francs aussi ñun am li nga xam ne moom mooy euh, télé yi Solstar ah 32 pouces yi LED moom it nee naa leen ndox mu neex lay joxe lépp loo xam ne mooy qualité d'image et koy génneel comme nu ko waree li nga xam ne aussi moom mooy 42 pouces bi ah moom it LG la da lay génneel qualité d'image bi nga bëgg génneel la son bi génneel la lépp loo xam ne soxla nga ko en matière de qualité de télé donc lii mooy li nga xam ne ne moom mooy Mobilcom donc su ma jógee ci Mobilcom damay comme d'habitude ànd ci ki nga xam ne ne aussi euh, moom mooy Good Life Store voilà donc Good Life Store nee naa leen lépp loo xam ne mooy produit euh, bu jógee États-Unis que ça soit des produits hygiène corporelle que ça soit des produits pour euh, alimentaires lépp loo xam ne ne rek États-Unis am na fa waa Good Life Store dañ koy jëlee ba États-Unis indi ko fii def ko ci ay boutiques yu mag macha allah yéen ngeen daal di ñëw tànn ci bu leen neex donc fii nag ñun ñu ngi am li nga xam ne moom mooy produit euh, hygiène corporelle yi maanaam euh, parfum bébé yaa ngi nii donc li ngeen gis ni ay parfum bébé yi am na li nga xam ne moom mooy lave euh, lave la bain de bouche yi bain de yaa ngi nii macha allah Listerine yi donc moom it baax na ci li nga xam ne moom mooy gémmiñ maanaam la bouche parce que soo wooree ba ngoon tu as à fermer vraiment la bouche donc nag soo ko tëjee à long terme day mën na génne odeur yoo xam ne du la neex donc nag soo dogee ba pare mën nga ko utiliser sa bain de bouche def sa listerine bu baax rek xale yi am nañ fi ay parfum mu ngi nii eau la eau de Cologne pour xale yi euh, bi ma ci gën a intéressé nag mooy bi nga xam ne ne moom mooy euh, gel bi saabu bi euh, maanaam saabu bi dafay ànd ak li nga xam ne moom mooy menthe gis ngeen saabu bi saabu bi menthe lañ koo defaree dafa ànd ak menthe donc tey soo sangoo saabu bi soo sonnee soo sangoo saabu bi soo paree dangay ngay sentir da ngay sa yaram day relaxé tu vois da kontaan da ngay sentir sa bopp nga oyof sa yaram di daal di glissé euh, loolu koy waral mooy composant yi nekk ci biir saabu bi ndax ginnaaw euh, amoo frotté soo sangoo saabu bi ah soo naafi laa pare nga sangu ko daal di seetaan afta ndogu ah bëgg nag avant xuma la ngeen nelaw di diggante bi de ndax am na nu muy demee ngeen nelaw am na nu muy demee soo leen ko sangoo ngeen nelaw léegi da ngeen koy daal di sangoo daal di toog seetaan after ndog wala boo ngeen seetaan after ndog ba pare ngeen doog koo sangoo daal di dem tëddi ndax bëgguma ngeen raté li nga xam ne moom lañ leen présenté ci 2S donc on continue aussi avec li nga xam ne ne euh, moom mooy tey yi tey nee naa lañ di lutter contre le cholestérol ak li nga xam ne mooy diabète parce que diabète ak cholestérol instant bi dafa bëri ci biir dëkk bi te vraiment euh, nit ñi sonn nañ ci torop ku nekk yaa ngi digal sa morom lii ngay naan lii ngay lekk lii ngay naan diabétique yi euh, régime bi métti na ci ñoom ñi am cholestérol aussi seen régime métti na donc nag moo tax ki nga xam ne moom mooy Good Life Store daf leen indil ay euh, thé yoo xam ne da ngeen koy jëfandikoo ñi nga xam ne dañoo am euh, yooyu maladie suñ ko utiliser dinañ ci gis amélioration ñi nga xam ne aussi amuñu ko lii day lutter contre loolu maanaam day lutter contre cholestérol ak diabète donc euh, gën leen euh, ñëw utiliser li nga xam ne moom mooy tey yi ci Good Life Store ah, moom moo koy jaay keneen du ko jaay ñu continuer ak li nga xam ne moom mooy ndox yi eau yi eau de source yi mu ngi nii eau de source yi moom it vraiment sell moom la ñu yor suñu plateau saa yi ñu namee naan rek moom la ñuy daal di naan mu ngi nii nee naa leen am na grand format am na moyen format am petit format ak li nga xam ne aussi moom mooy eau gazeuse yi eau gazeuse yaa ngi moom it États-Unis la jógee eau gazeuse moom ñëpp xam nañ ko ndox la bu am gas ci biir ah donc day mel ni da naan boisson te fekk naanoo boisson mais ndox la naturel moom it eau de source la bu def gaz donc lii mooy boisson énergisante yi donc mu ngi nii macha allah donc lépp am na fi daal fii mooy Good Life Store ah donc euh, di fàttali ko aussi que ne di ko aussi que ne euh, nag nee naa leen dama am ay saaku ceeb yoo xam ne dañ koy mayee fii sur le plateau ndax nag euh, ki nga xam ne ne moom mooy Patisen en partenariat avec la 2S ak nga xam ne moom mooy Jim production ñoom ñooy maye li nga xam ne moom mooy saaku ceeb donc saaku ceeb yooyu noonu macha allah nee naa leen soo rek ci kàttanu yàlla deux saaku ceeb laay maye par jour ainsi que les paniers ndogu. donc li may mayee bëri na ci plateau bi damay mayee pañe pañe ndogu euh, ay ay ay paan mayee ay siwo mayee ay saaku ceeb donc question yi dama koy bamtuwaat rek euh, mooy question bi mooy lan mooy dama leen di laaj euh, lan moo gën a fës ci kangu kafe yan couleur moo gën a fës ci kangu kafe soo leen xoolee kangu café xam ngeen couleur yu gën a fës donc soo leen wootee ngeen wax ma yan couleur moo gën a fës ci kangu kafe ak ñaata format moo am ci gaamu kangu kafe su ma waxee format mooy maanaam ñaata pot moo ci am wala boog ñaata façon moo ci am donc ñaata bocal moo am ci kangu kafe primo euh, lan moo yan couleur moo gën a fës ci kangu café ñaata euh, format moo am ci kangu kafe euh, troisième question bi mooy stick bu ndaw bi nga xam ne moom ngeen di gis ñaata lay jar en boutique soo demee ci boutique di jënd kangu bi ñaata ngay joxe defe naa ne question yooyu xam ngeen ko ndax sànq rek wax naa ko wax naa réponse yi pour vous dire que ne il faut ngeen toog déglu li nga xam ne moom laay wax tout au début de l' émission pour ngeen mën a après woote xam li nga xam ne moom mooy réponse yi ngeen wootee ma teral leen sama yu baax yi man nag damay daal di continuer ci ki nga xam ne ne moom mooy suñu plateau voilà donc nag ñu dem seetaan ki nga xam ne ne moom mooy Babou ah euh, naa leen 2S moom euh, tout le temps journaliste yeeg plateau bi ñëppay liggéey donc Babou il nous a fait un élément ngeen ne instant bi euh, monde basket bi dafa xaw a yëngatu tuuti ah donc nag balaa ma ciy xuus dama ngeen dem seetaan élément bi après ñu daal di ñëwaat sur le plateau maximum rubrique yi pour ñu tuuti commentaire ci ndax ma nga fa sportif la Fafa ak Eva Show ak Bébé Chou ñu nga fa donc a am sunu li nga xam ne ne moom mooy élément Badou kii di président comité de normalisation du basketball mu ngi indi ay leeral li tax nanguwuñu candidature baaba Tandian sëriñ Boub ne si teg si rek li ñu sikkandiku. moom dafa bañ dàq li ñu def ñetti yoon daf ni moom ñun ñiif amuñu droit euh, def liggéey bi ñu def nekkuñu fédération amuñu droit def ay tex amuñu droit li amuñu droit la loolu dàq nañ ko parce comme ni ma waxee gouvernement bi ci kayit gi mu bindan ak FIBA jox ñu mission yi daq na loolu. si ay fan si ginnaaw kii di baaba Tandian daa waxoon ne kii di Serigne Mboup da envoyé woon ay SMS di ko wax ne candidature am dinañ ko nangu Serigne Mboup di dàq ay tuuma di si indi ay leeral. te lui et le seul dans toute la famille du basket qui m'a envoyé un SMS en me disant jàppale ma le SMS est là soo ma falee dinaa la jàppale nga nekk président d'honneur ñu war a amal assemblée générale bi le 27 juin pour fal ki nga xamante ne mooy njiitu fédération sénégalaise de basketball bu bees bi Serigne Mboup di artu dina du ñu nangu kenn dafay indi ay coow. dañuy def élection le 27 incha allah mission d'état la bu war a àgg ci la dem équipe nationale yi coupe d'Afrique yi ñëw Afrobasket Tunis bokk aju ci la équipe nationale bu jigéen ñi suñu gaynde yi nga xam ne gagné nañu lu ne war a dem coupe d'Afrique aju ñuy di ñaan. ñu jël matuwaay yi nga xam ni moom la ñu war a jël amuñu fi benn duut sax ndax loolu amoon keroog ba mbir mi ku ci bokkul boo fa ñëwee lu fa xew yaa ko fa indi. comité de normalisation bu basket bi ñu ngi ko tegoon ci atum 2013 mu war a jeexal mission ci samedi ji si benn assemble générale bu ñu war a teg moom ñaari candidature mu di bu Mathia Faye ak ki nga xamante ne moo di Babacar Ndiaye. voilà donc euh, dégg ngeen ki nga xam ne moom mooy Badou li mu def ci reportage bi nga xam ne mooy CNBS euh, li ñu def euh, formalité yi nga xam dafa changé au niveau du basket parce que nag dafa amoon ay candidature Baba Tandia daal déposé waa déposé li nga xam ne moom mooy candidature am ñu daal ko rejeté waaw lu waral loolu mooy dañoo changé li nga xam ne moom mooy option yi formalité yi forme dañ koo changé hmm, maanaam su fekkoon ne par exemple da nga war a njool suñu fekkee pour la fal da nga war a xam nga da nga war a sew bi baa dañu ne da nga da ngay rëy tu changé au niveau euh, du basket moo tax moom Baba Tandian kenn euh, accepté wu li nga xam ne moom mooy candidature am donc ñi ñuy retenir moom mooy Mathieu Faye ak ki nga xam ne ne moom mooy maître Babacar Ndiaye donc Mathieu Faye de Mbour donc moom Mbour moom Duc la nekk donc ñaari candidature yooyu la ñu retenir hmm. euh, donc incha allah nag le 27 juin moom mooy assemblée <laughs> générale donc xam naa ne yow di nga xuus ci loolu parce que yow yaa yor le sport di nga ci dem ah xam naa li nga xam ne moo fa xew pour mun ñu ko indil fii suñu plateau After Ndogou du dëgg eh, donc on va continuer aussi mbokk téléspectateur di leen fàttali ni yéen a ngi seen plateau After Ndogou euh, on va continuer avec Fafa Fafa moom nag moom damay bég parce que Fafa yow sa lunette yi nga sol Fafa lunette yi fi nga génn tey daal yow daal mbokk téléspectateur yi chaque jour yu bees jàpp sama ñaambur bañ boole dara ak wax doo bëri doo bëri dara non je suis silencieux tu es silencieux vibré wu ma sonné wu ma coowu looy def kon yéen li ma clignoté rek <laughs> yaa ma gën lan nga ñu indil ci lu neex tey damaa doxantu woon ci dëkk bi rek comme d'habitude mhm. damay taxawaaw rek Aïcha dox naa doxa dox ba faatu eh, waaw tey dugg naa ci biir dëkk bi nag doxantu tuuti am lu ma buub ci dëkk bi am lu ma root am lu ma taataan mhm. andi ko nag jébbal ko téléspectateur de 2STV mhm. ñu seetaan doo ko rek te dikk léegi léegi ci plateau bi rek yaatal ci wax ci lu baax liggéey na si weeru client duñ la may jàmm foo feree ni coow lu dul jeex ñun daal garaaw ñoo ngi bëgg nañ ko ñu dimbali trop alkaati yi sonal nañu si télé bi weeru koor bi daal moo ngi métti na trop si ñun neexul daal lu ma ñaqee da ngay braqué bay bëgg a dee lu yàlla xam doy na en tout cas ñun daal ñoo ngi daal suñu mënoon dimbali daal si télé bi jëm ñu oyofal affaire dina neex trop te ñun suñu njaboot moo tax ñuy dem njaboot la ñu am dañuy xëy ñaanuñu lebuñu kenn mais suñu liggéey alkaati yi sonal di bëgg nañ ñu rey surtout almaat alkaati Kër Masar ak Kateré meeg ñun grand sonn nañ grand nañu dimbali laa wala suñu liggéey. mais alkaati yaa fi di jàpp oto si condition bu tegul yoon pour pour quelle raison tegul ñu ko si yoon alkaati grand yaa fa ngi boo demee boo boo joxul téeméer ñu attesté la ci non nga ñëw jox téeméer ngoon téeméer suba téeméer ngoon te da léegi dañ kii day monté midi kii monté deux heures. su koor gi demee ba ay. 15 jours daal dina tane daal mais actuellement nii nii wax dëgg yàlla moom mooy loolu moom neexul yenn neex yi moom waru ah ba may lang laa ko mos a def waaw boobu lang naa yuuxu ba sama baat bi dee amatuma lenn ma dem si dànga naa ma xool mu leer mu dugg foofu lekk génnaat waaw. gannaaw oto moo àndul ak woor métti na torop dafa métti parce que dafa métti. alors donc Fafa yow daal yaa ngi ci car rapide yeeg yooyu. Ah, afta ndogu ñëpp la fi nekkal quoi mm-hmm. weeri koor gi ñëppay liggéey ñëppay waar ñëppay ñëppay xoslu quoi moo tax da war a dem laal fii laal fii laal fee laal fe mm-hmm. ñëpp laa bëgg a dem incha allah képp mm-hmm. ku nekk ci loo nekk rek ki looy dox rek bëgg naa ko andi fii ci plateau afta ndogu ñu waxtaan ci bu baax xool nu ñu ko mën a améliorer xam nu ñu koy dundee ak weeri koor gi waaw li ñu wax alors lan moo nekkoon euh, problème xam ne moom la chauffeur di jànkonteel ci mois de ramadan bi waaw ñoom seen problème mooy policiers yi ñooy seen problème alkaati yi li ngeen di laaj li ngeen di dagg li ngeen <laughs> xam nga kenn xamul daal parce que chauffeur yi tamit ñoo ah, dégg nga maam ku nekk ak say yëf rek yaa ngi dégg mm-hmm. affaire yi parce que man dama jàpp ne mm-hmm. soo bañee alkaati sonal la mm-hmm. sa lépp na mot parce que ku sa lépp mot kenn du la mënal dara dara dara dara dara bul desal dara boo bañee ku la yàpp da ngay respecté norme yi yaa ngi dégg utal say papier boobu mot lépp loo xam ne war nga ko mën a manqué nga motal ko bul manqué dara feu phare étoile peinture lépp na mot bu ko defee kenn du la yab kenn du la jàpp kenn du la déranger mm-hmm. yaa ngi dégg mais alkaati yi tamit ñu dawal yërmande mm-hmm. parce que Sénégal la te dañoo nekk ci weeri koor mm-hmm. da ngay woor ba ngoon jot daw parce que liggéey tamit ku nekk liggéey wut sa njaboot moo tax dañu xool ne ah, ah, apprenti yi ak chauffeur yi tamit dañoo am njaboot comme ñoom dañuy daw pour yóbbul seen njaboot dara nañ comprendre yaa ngi dégg wàññi dëgër gi quoi. ak coppat gi coppat gi di wàññi ko tuuti quoi roppat gi. mais Fafa <laughs> mm-hmm. des fois des fois. Mm-hmm. Euh, euh, policiers yi dañuy jàpp chauffeur yi mais pas ay problème papier. Mm-hmm. parce que ni ñuy dawalee la. des fois dañuy def erreur ci ni ñuy dawalee ñu jàpp leen. xam nga faadu xam nga yar dafa baax ci lépp loo gis. Mm. parfois da ngay gis man contre ma trop apprenti ak chauffeur yi parce que boo gisee. ñëpp dañ leen teg fu ñaaw. Mm. apprenti ak carapide koo wax ngi ne ñi yaruwuñ dañoo réew tout ça comprendre mm. te man contre ma leen parce que nit ku nekk da nga am say jikko sa kër parce que nit ñëpp buñ la la focaliser fenn rek ñëpp fa lañ lay xoolee. Mm. te buñ la fa xoolee dañ lay tooñ parfois. bu ñëpp jàppee ni ñoom yaruwuñ yaruwuñ yaruwuñ da ngay gis parfois nit wax ak yow sax juum nga jàpp ne dafa réew tàngal ci kawam fekk. defee ko benn intention parfois ñu ngi dañuy def erreur nañ jàpp apprenti ay chauffeurs yi comme ñoom lañ mel di waxtaan ak ñoom naxante ak ñoom ñuy juboo moo gën tout le temps di xëccoo ak ñoom yaa parce que règle boo gis am na exception mm-hmm. am na ñu ci yaru am na ñu ci correct mm-hmm. am na ci ñëpp ah foo dem bureau yi sax am na bureaucrate yoo xam ne dañoo yaru ñuy tànqol ñuy métti ñi ñëpp la mm-hmm. kër yi tamit noonu suñu parents yi noonu suñu rakk yeeg suñu mag yi ñëpp noonu lañ mel comprendre li mm-hmm. ñuy waxtaan mm-hmm. que mbiru mm-hmm. que en fait ñoom car rapide que bu ñu xoolee Dakar dafa bëri oto trop y a trop de voitures fii embouteillage que dinañ ci génn déjà da ngay gis heure yi yana tellement clients yi dañuy fees dellu ci biir nit ñi ñooy obligé génn di jël ay tàndarma wala ay dara suukar wala yooyu di leen ko jox pour ñu mën a dog ndax ndax li mu leen fekk ci mbedd bi li mu leen fekk ci yoon ak embouteillage yu métti yi mhm. déjà mais ñoom seen vie comment ça se passe est daan ci génn carrément mhm. xam nga ponkal mu day ni bàyyam <laughs> yor oto yaa ngi dégg ponkal mu day ni bàyyam mhm. yor oto suba bu ngoon jot di tës tësi lam ci am moom moo ko xam ca poosam la jëm yaa ngi dégg xeeba ko benn mag nee na ma ku xeebut sag noos ak yaa ngi noos <laughs> ku xeebul la ngay yaa ngi noos yaa ngi dégg peut-être nag ñoom la ñuy dañ cay noos moo tax xeebuñ ko waaw loolu mooy seen wërsëg ku nekk ak sa wërsëg nag waaw kon daal ngi noos ba yàqu <laughs> noos <laughs> ngi doon wax yow euh, Eva la moom lay waxaat tout le temps mhm. parce que euh, soo xoola tali yaatu na mhm. mais xool ci boppam ñoo xat mhm. nga la waaye sénégalais yeeg ñëpp yaatal leen xol yi rek ñëpp jàll. ñëpp jàll la euh, Fafa da wax sànq am na benn wax ba nga wax sànq xam naa ne hmm. nee nga loolu tax nga leen moo tax ñu leen di jàpp en fait am na li nga wax sànq. waaw dama ne. Uh-huh. ñu matal seen lépp. matal comme lan sànq lim nga lim nga. <laughs> nee nga lan eh. papier. feu faas papier peinture. waaw peinture lan la ci <laughs> léegi dañuy jàpp ci peinture Fafa yama. am na <laughs> ñu jàpp la. peinture lu taxi Sénégal hmm. jaune noir la yaa ngi de boo defee orange noir dañ la war a jàpp <laughs> waaw bleu noir boo ko defee nii ngay jàpp. vert blanc boo ko defee nii ngay jàpp di taxi. ma ne yaa ngi yaa ngi leen di sosal sax. Eh, ma la wax dafa yéen waana. waaye bëgg naa mosuma sos nekk wéroo. <laughs> voilà donc euh, <laughs> kooku <laughs> am euh, na peinture yi dañ koy jàppaat kon yéen taximan yi parce que ku ci def bleu lan bleu noir orange noir. mais am na orange am na orange. am na orange am na orange am na orange. blanc dafa xaw a nuru jaune tuuti. papa yaa ngi bëgg moo tax mais <laughs> mais bleu ko fi def. di <laughs> daay di ko rëccu parce que nekk jaune noir rek nga xam. papa taxi marron beige nag moom daal la jàpp. dañ lay jàpp <laughs> dañ lay jàpp nikk lañ lay na donc loolu li nga xam ne ne euh, moom mooy nekkinu chauffeur yi nekkinu car rapide yi taxi ci kaw tali bi si circulation bi déjà comme li Eva wax rek dafa bëri circulation euh, trafic bi dafa dense donc il faut que ñuy daal di yaatal xel yi yaatal xol yi ah, di muñalante ci weerum koor bi te aussi kenn ku ne di respecter le code de la route le code de la route c'est très important c'est très important pour le bon fonctionnement du trafic urbain mm-hmm. donc nag il faut que ñuy respecter li nga xam ne moom mooy code de la route bi ñuy taxaw fu ñu war a taxaw ñu fay taxaw mm-hmm. su fekkee ne parking dañoo ne fii parking pour nga parquer en attendant que client ñëw nga xam avancer fi fi ñu la waral mm-hmm. mais gars yi nga naan man su ma mujjee ñëw nekk ci ginnaaw client su ñëwee man la ñuy ñuy buuxante dañuy buuxante voilà client bi daf may raw donc à la fin soo soo seetloo dañuy dañuy bloqué circulation bi mm-hmm. donc boobaa ci lay indi embouteillage kenn ku nekk da yàqamte loolu day indi ay tension au niveau du cœur donc moo tax nañu respecté li nga xam ne moom mooy parc yi ah, ñu respecté li nga xam ne moom mooy code de la route mm-hmm. suñ ko defee ci kàttanu yàlla defe naa ne ak problème du am gratuitement chaque jour damay ñëw may jàng oto sama directeur Matar Diop doomu ndey Abdou Abdoul Ndiaye uh-huh. yaa ngi dégg moom daf may gëndal oto <laughs> nee na ma jàng marto ngay dóor non non dóoroo damaa jàng oto rek mu dégg ma oto ne ma jàng Aïcha on bu rëy sama directeur Matar Diop dama koy nuyu de passage doomu ndey Abdou Ndiaye bàyyi Moustapha Cissé Lo ca Touba xam nga sama sama sama sama dama koo xam nga moom da la koy dóor dama laa sax keroog dama laa mere woon xam nga dama mere yaay dégg da ko te da ngaa sa papa ko te xarit la <laughs> mère na la nuyu waale mère bi dégg mu nuyu waale mère waaw dégg nga daal du ma topp ci dara <laughs> mi ngi noonu kooku nekkoon Fafa donc mi ngi noonu daal code de la route ba code de la baa ngi noonu. Mhm. nañ ko respecté nañ ko teg ci yoon incha allah lépp dina jaar yoon. su ma jugee nag ci code de la route ci Fafa ak chauffeur yi mhm. damay jàll ci nga xam ne ne moom mooy bébé chou euh, bébé chou tu es toute belle alors tu vas bien. merci ma chérie. nga may gën a nuroo instant bi uh-huh. Whitney Houston yéen a ngi fàttali ko Whitney Houston. Mm-hmm. Ah, Whitney Houston la ma eh. bébé di nuróol fu mu na tax na ba yàq naa la non danga di danga danga sonn danga. mais Aïcha Aïcha ñu ak seen termes la ñu damay toog di répété rek. Amaro moo leen yàq Amaro ah, day fekk ay gone yu respectable gone yoo xam ne dañoo toog mu engagé kooku Amaro donc ñu ngi koy nuyu de passage mu ngi mm-hmm. euh, te lan de jeune xam nga ay man damaa jël jeunesse tippoo ko. Mhm. def ko sama yëf muy sama yëf. ba tax na chaque jour damay ne benn thème boo xamante ne rek. ça part de la jeunesse. bu fekkee mën nañu wax ay conseils sax. Mhm. ñu mhm. donc comme ni ko defee saa su rek. dañu seetaan reportage bi ma def léegi élément bi. ñu àgg ci plateau bi gën a yaatal. cohabitation entre les jeune durant le mois de Ramadan. mën naa ko expliqué ci euh, deux deux façon benn bi ku ne xam ne ni saako bu deful dara du taxaw loolu c'est pour tooñ sàmbeen yeeg ak wàddeen yi donc mënoo xiif ba pare di bari histoire xiif ba pare di coow di xuloo ko bàyyi mais bu loolu weesoo aussi comme ni ma la ko waxee léegi nit ñi dañuy woor ngir yàlla yàlla mooy fay te mënoo nekk ci jëf yàlla ba pare di tooñ sa naataangoo ndax nee ci alxuraan ni boo ko tooñee say say lu baax day dem ci moom donc nag kenn mënut a yendoo woor fanaane ko sonn ba dee di topp suñu borom di tooñ nit ba lu baax li dem ci yow ci moom donc li crois loolu moo waral moytu bi mais jeunes yi moom euh, mais nag ñu ñaan yàlla mu continuer ah mu nekk bu dul sax mois de ramadan cohabitation bi continuer jàmm am jàmm sax. mais même dul mois de ramadan yooyu dafa war a mën a mën a ñàkk daal parce que waxante yeeg defante yi temps normal sax baaxul am euh, à plus forte raison mu nekk euh, mois de ramadan nga xam ne jaamu yàlla nga war a def. sa lépp woor nga bañ wax sa waxu moroom li jënd sa yëfu moroom dugul sa yoon nekkul donc maanu total d'une manière général donc euh, je pense que loolu la jeunes yëpp war a def te loolu dafa war a nekk loo xam ne dañ ko war a continuer war bañ ko yemale ci mois de ramadan kese parce que loolu la yàlla santaane te loolu sax moo ñu jikk koor ak ñàkk koor yëpp noonu la ñu war nii comme weeru koor ni ñu dundee noonu ñu war a dundee n'est-ce pas que boo xoolee weeru koor ñoom dañuy xaar ba weeru koo jot ñu bo booloo nekk benn je trouve que ne koor ak ñàkk koor yëpp dañoo war a def benn parce que comme diine comme boo ne jullit nga weeru koor ak ñàkk weeru koor yëpp da nga war a dundee comme weeru koor. koor gi daf ñuy motiver pour ñu xamaat ki ñu doon dellu ci yàlla et tout moo tax koor gi boo gisee jeunes yi day sedd dañuy ñëw sama genre gi def yore olof bu baax daal di def kaalewu di jullit di jaamu yàlla te damay ñaan yàlla tey loolu continuer kon entente boobu noonu di am su ma sañoon chaque jour day dem di avancer et alors ay voilà Aïcha mbokki téléspectateurs yi gis ngeen élément bi nga xamante ne moo jàll léegi. Mhm. suñu thème tey nag dafa nekk cohabitation des jeunes durant mhm. le mois de Ramadan. Mhm. c'est-à-dire entente bi nga xamante ne jeunes yi dañ ko am durant le mois de Ramadan. parce que Aïcha on a tendance à voir que les jeunes. pendant le Ramadan dañuy déggoo. dañuy baalante ak. yéenante jàmm di demalante di dikkalante. di invité def ay affaire yu rafet. comprendre nga alors que bu koor amulee xuloo bi day bari. <laughs> tey sant bi fii. rambax rambax bi fii comprendre nga. donc euh, kon ñëpp rafetlu gis nga reportage ni ma ko defee nii jeunes yi. rafetlu rafetlu li nga xamante ne mooy entente bi jeunes yi am durant le mois de Ramadan. Mm-hmm. te defe naa ne entente dafa baax ci lépp loo gis. ay nit bu ñuy ànd dañuy déggoo. Mm-hmm. pare dañuy comprendre te c'est important. comme li ay faafa waxoon rek la fa passé. Mm-hmm. gémmiñ bu yàlla xar rek am na wërsëg. am na am na am na lu mu def ci yow. donc nañu yéenante jàmm daal di yaatal xol yi. te xam ne yàlla mooy maye du dëgg. donc euh, euh, entente boobu nag ñuy am durant avant le mois de ramadan dañ koy war dañ ko war a continuer dañ ko war a continuer daal di bëggante rek te xam ne àdduna amul solo mm. ah ñuy def ci weeru koor rek loolu laay wax tout le temps nañ koy essayer même bu xawee metti sax ñu jéem mm. ba pare Aïcha di wax ne ne que li nga xamante ne mooy jeune et corps mm-hmm. rubrique la boo xamante ne ñëwuñu pour dénoncer les maux de la mm-hmm. jeunesse au fait ñëwuñu aussi pour tuutal jeunes yi wala di indi seen yu bon di ko teg non non dañoo ñëw parce bi Bibichou peut-être bu ñëwee indi benn euh, benn argument mm-hmm. Aïcha wax ci benn opinion bu rafet mhm. Zeyna wax ci opinion bu rafet Fafa wax ci opinion bu rafet mhm. euh, Evachon aussi wax ci opinion mhm. na am kat benn jeune bi nga xamante ne ma nga toog ci këram opinion yooyu yëpp li Aïcha wax Fafa wax ko Zeyna et cetera mën na ko tirer mën na ci tirer leçon mën na ci jàpp dara donc du rubrique boo xam dañu ñëw pour pour pour buntu xataal jeunes yi mais juste pour jox leen ay conseils parce que tam xel du doy yaa ma mag c'est vrai mais mën naa jox conseil comme yow man tam mën nga ma jox conseil a baax Euh, des jeunes durant le mois de Ramadan muy entente bi nga xamante ne moom la jeunes yi am nit ci rafetlu ko bu baax a baax a baax. Mm-hmm. bu ma sañoon ñu continuer ko. te xam ne jàmm rek moom moom voilà Zeyna. loolu ci yokk tuuti. Mm-hmm. Euh, euh, c'est-à-dire en fait comme koor gi. Mm-hmm. dañuy faral di gis ñëpp dañuy yar seen bopp ci lekk. comme ni ngay faral di gis mbedd ñi. gars yi ñu toog di di wax ci nit. ñu bari dañuy dañuy dañuy dañuy am daal cër si seen bopp. man daal loolu su ma sañoon tamit Aïcha ñu continuer ko. parce que tamit lu muy doxee. ba ngay wax ci moom. wala toog ci mbedd di kii. su koor gi ñoom ñëpp dañuy changé. ku nekkay toog def sa dal xam nga. doo lijjanti kenn yow yaa ngi tal sa koor. yar yar sa cër day mel ni cër yëpp day day yaru. nañ ko continuer. nañ ko continuer dëgg la dëgg la donc loolu c'est très important. xam naa lu waral noonu defe naa xiif gi la. waaw xëy tu sais quand tu as faim. <laughs> tu n'as pas le temps de te xam nga tu n'as pas le temps de te mêler. des affaires des autres. tu n'as pas ce temps là xiif <laughs> du mm. bokk. loolu la xiif googu noonu nu mu ñuy yare c'est-à-dire que moi je pense qu'aujourd'hui xiif parce que kenn ku ne xiif gi da yar ndax ay chance xiifee wallaay talu kii nu mu doxee talu kii nu mu soloo talu kii la muy wax mhm. lu mu ti def moi c'est pas mon problème ndax tam naa sama biir bi maa ngi dee aw ma sax kattanu lijjanti wala si gi xool nit tu vois donc je pense que ni ñu xiif bi di yaree noonu mhm. war nañoo am maturité mhm. ñun suñu biir yar suñu bopp c'est important parce que l'hypocrisie weesuwul euh, pendant le mois de Ramadan ñun comme li nga wax ñun ñëpp dañuy yéenante jàmm ñun ñëpp dañuy nekk benn juste juste après le jour maanaam Korité su passé rek ñu mel ni ñu nekkoon ci la nekk voilà ngi wax sama wax chaque jour quoi man loolu laay wax chaque jour mm-hmm. nekkul mois de ramadan rek la ñu war a changer comportement yi wala mois de ramadan ñëpp lañ ci dindi yoo xam ne mm-hmm. daganoon ah. lekk naan jaxasoog sa soxna bu la lewee mm-hmm. ci bëccëg gi ñett yooyu kese kese kese kese hmm. lañ dindi te mu daganoon mais le reste yëpp yëpp yëpp hmm. yàlla aay woon na ko avant mois de ramadan aay na ko durant mois de ramadan nañ ci bàyyi xel bu baax quoi nañ ci bàyyi xel yàlla ñett yooyu rek la dindi durant mois de ramadan hmm. lekk naan jaxasoog sa soxna ci bu la la lawee dégg nga yow il faut que dugal ci tamit loolu. man daal moom dafa bëgg ay wax. moom téléspectateur yi tey nag bi incha beneen thème boo xamante ne Aïcha dina dina ci wax Fafa dina ci wax ay dina ci wax. ay gën a chou tout est possible. Fafa moom bu ci wax. parce que ci indi loo xam ne kenn kenn sant ko. kii voilà donc loolu moo nekkoon li nga xam ne ne moom mooy bébé chou Eva lan nga bëgg a sànni ci amoon loo sànni ci kii bi. en fait Aïcha li ma ci sànni ni ngeen ko waxee yéen ñëpp déjà wax nañ ko mais lenn rek man moom ma ci xaw a euh, distëb tuuti mm-hmm. mooy Fafa Fafa daal foog mu indi daal xool fi nga xam ne foofu foo gën a sensible rek mu ni ko doññeet ñëw teg ci na nag jaxasoo ci bëccëg xam nga ne lañu wax mais di soog di takk mais Fafa wax dañ koy dañ koy defar quoi xam nga booy wax da ngay wax loo xam ne mooy dëgg kese pourtant nag téere la wax wax lenn lañ dindi ci weeru koor. Mhm. lekk naan jaxasoog sa soxna bi la lawee. ci mhm. bëccëg gi. <laughs> moom lañ dindi. waaw moom lañ dindi ci weeru koor. Fafa tey da ngaa doon Michael Jackson eh, eh, nii yow. bëkk démb laa jóge lii tey ba la. anniversaire Michael la non non non Michael de Sew. est-ce la yaa ko wax ko wax tu es sûr tu assumes ah voilà donc bébé bébé bébé na tey la anniversaire u euh, décès u Michael Jackson ah. donc je pense que si ça si se trouve vrai donc demain on va faire un reportage sur Michael Jackson ah, aussi ah il faudrait quand même l'honorer ah Michael Jackson décédé la tey nekk jour anniversaire décès moom mooy ñu Michael Jackson <laughs> dégg nga maam daal kon daal. <laughs> daal parce que li may waxati mu ngi nii dama la sof ci plateau bi daal. <laughs> dama la neex tudd tax nga weer ah. oh, mere naa kon wéro nekk dama la bëgg suñu nuroo waale yow Michael Jackson sa ndam la rek Michael moom. Michael rek ah di nuyuwaale Michael Jackson looyoo passage. ak ak fan su Michael Jackson yi. man gay dollar laa ko gën gay dollar sama xarit am na misu naa la. voilà voilà donc euh, mi ngi noonu donc même si fekkee ne na tel euh, anniversaire de ces Michael Jackson demain on va de faire un reportage là-dessus et nga xam ne ne yaa koy kii yaa koy def yaa ko naka la ñuy dundee aussi euh, commémorer mooru Michael Jackson ah, boobu noonu sama gars dafa am benn rubrique bu bees bu bokk ci li nga xam ne moom mooy after ndogu nee naa ne after ndogu Euh, loolu ñuy gën a xuus di gën a indi yu baax yu gën a indi yu riche léegi nag waa 2S dañ cee am spécialement rubrique pour ñoom fii mooy li nga xam ne ne moom mooy kooru waa 2S kooru waa 2S nuñ koy dundee waa 2 naka la ñuy dundee li nga xam ne ne mooy koor gi loolu laa bëgg laay may ñu ñu xool waa 2 naka la ñuy dundee euh, euh, koor gi instant bi <laughs> laay may ñu loolu ñu xool <laughs> lii nag ay image la yoo xam ne ne euh, waa des la ñii ay élément 2S lañu donc euh, kii mooy Badara Diop. kii mooy jabaru Tunkara xam nga Tunkara. eh madame Tunkara ndeysaan sama sama mag. Tunkara ni mu solalee nit ñi ñëpp moom jabaram ñemewul ko <laughs> reportage nag la jógee ah. kii mooy jabaru Tunkara mi nga xam ne ne moom mooy nekk ci télé bi di faay ñëpp. moom la jabaram daa sonnoon. xoolal Badara Badara a ngi nii. Fava kii nurawul chauffeur moo nekk ci wet bi gis ngeen Moussa Mbaye. Badara ak Moussa ak Badara ñoom ñoo nekk noonu di nelaw nii. ñi ñëpp ay élément lañ ay élément deux heures. donc euh, fi nga xam ne ne moom mooy reportage fa lañ jógee ñëw ki nga xam ne Badara Mbaye <laughs> Moussa Mbaye ak euh, madame Tunkara madame Tunkara xam nga sama xarit nga bu bu ma mere bu ma mere mais il faut que ñuy génne yooyu noonu ndeysaan dañoo sonn dañuy dugg fu nekk journalistes yi chauffeurs yi techniciens yi cam cadreurs yi. Ah, comme li nga wax les hommes de l'ombre mm. fu nekk la nekk fu nekk la dem. Mm. pour indil ñu le meilleur de l'information. Mm-hmm. Mm-hmm. indil ñu vraiment traité ñu information bi ci anam yu gën a wóor. Mm-hmm. ci anam yu gën a euh, solide parce que aussi il faut pas que nga joxe information yoo xam dafa erroné wala information yoo xam ne ne baaxul. donc ñoom ils se décarcassent. ñu dem sur le terrain partout dans le Sénégal ak suñu ngi aussi dans dem fii ci biir Sénégal correspondant 2STV mu nga foofu noonu donc ñoom ñu ngi leen di saluer ci seen liggéey bu rafet boobu noonu donc koor gi nii la nii la rubrique bi day na dafa métti dafa métti na yow soo commencé damay woor ba ngoon jot ma enchaîné ci dëkk chaque jour ma def koor chaque jour damay enchaîné chaque voilà donc sama gars man dama leen di bàyyiwaat ah il faut dellu ci li nga xam moom mooy boutique bi. a ko moom. mais partie boo ma neex nag neex na neex na alors donc ñu tàggatoo lan ngeen di wax dernier mot bi Aïcha man damay kontaan bu a baax a baax ah, toogaat ci plateau bi pour bokk ak yéen mm-hmm. maanaam damay remercier ki nga xamante ne moo jaar fii muy Mami Fan Ndiaye Diaw su ma ko tudd dina ma ray a baax a Ma mi ngi ba France di naa bu baax a baax di jox dig daje demain incha allah mm-hmm. ci seen ci seen rubrique mm-hmm. ci beneen tam incha allah incha allah Zeyna waaw man comme d'habitude rek euh, maa ngi maa ngi nuyu ñëpp du nuy sama chéri koko nag tey dina leen jaaxal laaj leen kan mooy sama chéri koko Euh, sama maam jooju ñu naan Samba Ndiaye nekk fee ca Gueule Tapée di 55 angle 66. Mhm, mhm. kooku sama maam la. kooku jur sama papa. Euh, maa ngi lay maa ngi lay maa ngi lay fóon lu bare bare. di ah, nuyaale tamit ah maa ngi dama kaa bëgg sama a eh, euh, maam tamit sama maam sama damay xuloog moom sama wujju la. xanaa maam yi dañ naan nga leen di nuyu ànd rek sama wujju la déedéet man sama wujju la. te moom damay ñëw su ma ñëwee sax di jege kii sax mu commencé maa. waaw léegi man ngi koy nuyu muy ajaratu Binta Ndiaye moom it maa ngi leen nuyu bu baax a baax a baax di jaar di waxaat nag ku jaaraat fii muy sama bàjjen jooju de mm-hmm. soxna Mati kooku nga xamante ne namul daraay sëy mm-hmm. ndax mu ngi toog noonu si côté sa si côté euh, jëkkëram jooju di Cheikh Mamour Essa mm-hmm. et aussi tamit euh, di ko nuyool Zakara jeex na yéen ñaaroon du woon yàlla dégg nga ah, à ñun ñoo dul ah voilà donc bébé eh, Eva mhm, mhm. maa ngi déjà di gërëm yéen ñëpp kontaan ci ni ma leen retrouver waat ce soir. di euh, gërëm mbokki téléspectateurs yi nga xam ñoom ñoo ñu doon seetaan ñoom ñëpp. di remercier di gërëm waa Ndar yëpp sama yaay sama papa sama famille yëpp képp ku ma xamee à travers la 2STV maa ngi lay mhm. gërëm. di la def un gros coucou. di def un gros ñi nga xamante ne tey nag ñoom laa yendul muy la belle mannequin di Nafissatou ñi ngi di ko def un gros bisou. ak euh, tonton Claude Daoud je l'appelle tonton parce que c'est un papa à nous je fais un gros coucou à tout le monde et euh, à toute l'équipe de Matise Sacré-Cœur à côté de chez Mbaye Dieye Faye moo génn fii mm-hmm. di jox daje demain incha allah ci beneen thème ci mode et mm-hmm. alors Fafa yow xam naa ne waa dama bëgg nga ngëm a tey ne a tuuti di tàggatoo waale di nuyu ñëpp di nuyu Delphine Bakili sama jigéen mu bëgg ma trop di ma dem mu defal ma reer bu baax Delphine nuyu naa la di nuyu waa Kaolack yëpp man Aïcha dama bëgg waa Kaolack ah. Kaolack laa am mooy sama lépp di nuyu waa Kaolack waa Boussan waa Parcelles Assainies di bëggee ñëpp sama sœur Khady Sagne ak Mariam Diallo maa ngi leen di bëgg di leen nuyu lii léegi def daal man ak yow def nank rek def petit couple rek def ci boutique bi rek def laa bëgg nga defante ak man chaque jour di ma gunge merci Fafa t'es gentil bisou <laughs> voilà donc mbokk téléspectateurs yi euh, comme ni ngeen ko gisee rek nee naa leen lii mooy plateau After Ndogou plateau relax la boo xam ne ne saa su ne rek dañ fiy nekk ak yéen euh, ngir dindi li nga xam ne mooy stress bi euh, dindi li nga xam ne ne moom mooy coono bi ngeen am durant la journée parce que da ngeen di woor te xam nañ ne koor nu méttee heure bi nag dina fekk ngeen sonn mais je sais que vous tenez toujours da ngeen di toog di xaar li nga xam ne mooy émission li ma leen wax fu ne nii moom ubbi nañu téléphone yi mën ngeen woote à tout moment ngeen dugg euh, pour répondre li nga xam ne moom mooy question yi ma joxe ci café Kangourou ànd ceeg Patisen donc nag xam naa am na ku nekk ci bi ma jël ko alo allo oui. allo. allo oui. allo ça va. noo tudd. Euh, Zeyna. Zeyna. la guerrière wala Zeyna naka. Zeyna la guerrière waaw. Zeyna la guerrière. <laughs> Zeyna foo ñuy woowee. maa ngi lay woowee Liberté 6. Liberté 6 man maa duggoon jeudi nga wax ma ma rappelé le vendredi. yow yaa duggoon jeudi dugg waaw. Ah, pardon répété li nga wax. Euh, dama duggoon jeudi. Mhm. après nga ni vendredi ma woote waat. Mhm. léegi vendredi dem jéem jéem naa dugg ba sonn mais kiiwul. voilà donc yow yow xam na laa bëgg. Mm. Euh, li nga déglu nga sama question yi ma posé euh, ci kangu café waaw déglu naa ko kay. voilà léegi nag répondre nga ci question yooyu noonu ma teral la comme yow duggoon nga duggaan nga répondre nga ci li nga xam ne moom mooy question yi ñu posé woon euh, question yi mooy li nga xam ne mooy lan yan couleur moo gën a fës ci kangu café. Euh, kangu café. couleur rouge moo ci gën a fës. non non yan couleur moo ci gën a fës yan couleur du benn couleur kese couleur yi bëri na. rouge. waaw. jaune. jaune. Euh, ak noir. ak noir. waaw voilà donc defe naa ne question boobu euh, trouvé nga ko léegi ñaata format moo am ci Kangu Café ñaata format quatre formats yi ban ak ban la. am na grammes. waaw. 100 grammes. 100 grammes. 50 grammes. ak stick bu grammes. ak stick bu 2 grammes. ah yow na tubaarkàlla yow ah, li nga xam ne ne gagné nga aussi deuxième question bi léegi lan la stick bu stick bu grammes bi ñaata lay jar ci boutique. Euh, ñaata. 50 francs 50 francs waaw macha allah yow de euh, Zeyna gañe nga donc euh, li nga xam ne ne moom mooy question yi euh, gañe nga ko léegi nag xam naa ne comme duggoon nga dama lay teral li nga xam ne moom mooy pañe ndaw xanaa bëgg nga. waaw kontaan nga. waaw voilà donc pañe ndogu bi ki nga xam moom mooy Zeyna gañe na ko léegi Zeyna yow bul coupé au niveau de la régie ñu jël sa tour exact ak sa numéro de téléphone incha allah vendredi maanaam suba. di ngeen ñëw ci plateau bi képp koo xam ne ne gagné na ci plateau after ndogu di ngeen ñëw ci plateau bi yéen ñëpp ñu teral leen fii en direct mbokk téléspectateurs yi seetaan kontaan nga voilà donc euh, mu ngi noonu euh, ci suuf ñu ngi jël li nga xam ne moom mooy numéro de téléphone am ak tour exactam donc képp koo xam ne ne gagné nga ci euh, lundi ba léegi incha allah demain vendredi ñoom ñëpp dinañ ñëw fii ci plateau after ndogu bi à la 2STV ñu fas ne leen teral muy maanaam li nga xam ne ne moom mooy pañe ndogu yi ak li nga xam ne ne moom mooy siwo yi paan yi lavement yi saaku ceeb yi aussi ñu ngi fii donc ko ñi nga xam ne aussi jënd nañ euh, côté électronique ñoom it dinañ ñëw fii ñu jox leen seen produit bi nga xam ne moom lañ jënd en ligne pour rek war na leen ne findal leen que ne ne fii nee naa du ay nax lii yëpp yéen a ko moom li fi nekk yëpp yéeneen ko moom ñun moomuñ ci dara yéen lañ ko jagleel yéen lañ ko jox donc continuer leen di woote euh, question yi xam ngeen ko mooy lan mooy euh, lan moo gën a fës yan couleur moo gën a fës ci euh, kangu li nga ñaata format moo am nga sitel ma li nga xam ne moom mooy format kangu yi ak li nga xam ne ne moom mooy stick bu 2 grammes bi moom ñaata lay jar ci boutique donc soo leen duggee ci loolu incha allah ngeen wax ma ma teral leen ci sama pañe ndogu yi teral leen ci saaku ceeb yi nga xam ne ne 2STV Patisen ak Jim Production ñoom loon ñoo leen koy offrir ceeb bi deux saaku ceeb laay maye par jour ña ñaari saaku ceeb mu ngi leen xaar kon gaaw leen woote euh, ñu daal leen tere leen loolu donc damay continuer ak nga xam ne ne aussi euh, moom mooy waa Mobilcom Mobilcom nag ñoom nee nañ tey dañuy ñëw ci tablettes yi tablettes yi mu ngi nii donc tablettes yi nee naa leen cherul dara cherul dara parce que en boutique mu ngi jaax 180 euh, 000 te fii maa ngi koy joxe 130 000 donc am na koo xam ne mu ngi ci ligne bi ma daal di koo jël. allo. allo oui. si ça ça bi naka la. Nafissatou Thiam. Euh, mën nga yokk tuuti sa baat nga baal ma. Nafissatou Thiam. na Nafissatou Thiam. oui. Nafi foo ñuy woowee. man waagu ñaay. waagu ñaay ana waa waagu ñaay. ñu ngi fi. ci jàmm. alhamdulilah. allah Nafi dama bëgg nga répondre ci question yi ma posé ci euh, Kangu Café. waaw. alors euh, xam nga question yi. waaw da nga ne ñaata couleur la am. ñaa waaw ñaa yan couleur moo ci gën a fës. yan ñoo ci gën a fës ak ñaata po. ak ñaata format maanaam format bi ñaata lañ. dafa am po bu mag bu ndaw ak demi bi. waaw mais dama bëgg nga wax ma exactement li nga xam ne ne moom mooy gramme yi parce que ay gramme la donc il faut nga wax ma exactement lan mooy gramme yi donc wax ma ñaata couleur moo ci fës couleur yan yi lan mooy couleur yi lan mooy grammage bi ak li nga xam ne ne aussi moom mooy pristique bi loolu bëgg. un liibar bi ak petit modèle bi. d' accord comprendre naa li nga wax mais man dama bëgg nga limal li nga xam ne ne moom mooy euh, chiffres chiffre xam nga dañu ne euh, kangu euh, kangu café dafa am quatre formats soo dégloo au début émission limal naa la format yi bu nekk bu ci nekk am na bu mag bu yam ak bu ndaw ak stick bi. mais man wax naa li nga xam ne moom mooy chiffres yi dama bëgg nga limal ma bu mag bi bu yam bi ak bu ndaw bi ñaata la. waaw lool laa wax. <laughs> voilà donc euh, dégg naa li nga wax am problème léegi man euh, su fekkee ne ni gagné nga dinañ la woo ah si sa numéro téléphone léegi lan mooy sa numéro téléphone. 923 wala na fi baal ma léegi xam nañu def damay bàyyi au niveau de la régie ñu jël sa numéro de téléphone ak sa tour exact ndax bëgguma caay-caay yi mën a utiliser yooyu numéro pour di leen sonal dégg voilà donc euh, kooku mooy Nafi donc li ma leen di posé c'est très simple soo leen gisee ci écran bi mu ngi affiché mooy ñaata couleur moo gën a fës ci kangu café aussi euh, ñaata format moo ci am ngeen limal ma li nga xam ne mooy format yi am ci kangu café ak stick bu ndaw bi ñaata lay jar ci biir boutique defe naa ne loolu yomb na ku ko ku ko ko gañee dinaa la jox euh, dinaa la jox li nga xam moom mooy paña ndogu dinaa la jox ay siwo ay pâte ay lave-mains et aussi dinaa la may li nga xam ne moom mooy saaku ceeb ah donc loolu defe naa ne loolu dara fay ko saaku ceeb yooyu ñu ngi fii disponible ñaari saaku ceeb la donc chaque jour ba mayee ñaari saaku ceeb maye li nga xam ne moom mooy pañe ndogu ak ay gadget voilà donc ñu continuer ci ki nga xam ne moom mooy mobile com donc nee naa leen mobile moom euh, li nga xam ne moom mooy tablette yi tablette 10 euh, pouces bi ak 8 pouces bi ak li nga xam ne ne moom mooy euh, disque dur 1 tera 1 tera égal 1000 giga donc 1 tera moom def naa mën na def lu ne pour képp ko xam ne ne bëgg na ci produit yooyu soo wootee fi en direct euh, dinaa la ko wàññil li doon jar 180 000 dama la koy jaayee 130 000 li doon jar nag 160 euh, 000 ma jaay la ko 110 000 euh, li nga xam ne moom mooy disque dur 1 bi ma jaay la ko 30 000 francs donc def naa ñetti élément yooyu ñoo nekk nii donc tablettes yu ñaañ li gën a neex ci tablettes yi mooy tablettes yi ils sont équipés du 4G c'est-à-dire que 4G la tablette yooyu am am na 2G am na 3G mais tablettes yi ñoom 4G la c'est-à-dire que li nga xam ne moom mooy vitesse euh, connexion bi day daal di day daal di gaaw ah parce que sooy déglu ñu naan ay G ay 3G 4G pour xool li nga xam ne ne moom mooy euh, connexion bi connexion bi gaaw na yéex na loolu yëpp ça dépend ci G yi donc yi tablette moom tablette 4G la soo leen wootee fii incha allah dinaa leen euh, wax dinaa leen ci gën a wax en plus ñu xool est-ce que da ngeen jënd wala doo leen jënd am na keneen ku nekk ci ligne bi ma jéem a dugg ak moom rek ci lu baax allo allo. allo soxna si ça va. ça naka koor gi. soxna si nga baal ma nga yokk tuuti sa baat ma mën a dégganteeg yow. ma ne waa ça va. sant yàlla foo ñuy woowee soxna si. Euh, Dakar. Dakar si Fatou Sikar Foire. Sikar Foire tur bi naka la. Euh, Ndeye Mati. Ndeye Mati. waaw dama bëgg euh, nga daal di ci question yi nga xam ne moom laa posé ci café Congo jàpp nga ko. Oh, waaw. alors maa ngi lay déglu. café Congo rouge. Mhm. jaune noir. rouge jaune noir moo gën a fës ci couleur yi. waaw yi ñaata la. 100 euh, grammes. 100 grammes. 200 grammes. 200 grammes. 300 grammes. 300 grammes. waaw. Euh, wóor na la. Mm, waaw wóor na ma kay. dégg nga est-ce que yow dégg nga li ma li ma doon wax au début. non jotuma koy déglu nag. jotoo ko dégg. non non léegi euh, dama bëgg nga daal di nga coupé nga daal di xoolaat parce que question bi am na quatre formats mais 300 grammes moom bokku ci. 300 ah, grammes bokk ci mais am na yeneen am na yeneen grammage donc yow soo xoolee wala soo laajtee ñi nga xam ne ñoom nga toogal xëy na dinañ la wax euh, ñeenti forma la ñeent kese la donc ñeent ah, boobu noonu am na am na sànga bi nga wax noonu la 200 grammes bi noonu la mais am na yeneen mais 100 300 grammes amul pour ma aider la. du dëgg. waaw dëgg la voilà donc ma bàyyi la nga ut information après nga duggaat dégg nga. waaw d'accord Aïcha voilà donc nag ñu continuer ak nga xam ne ne aussi euh, moom mooy euh, Good Life Store parce que Good Life Store moom it nee naa leen moom it ci partenaire yi lañ bokk ñoom nag lépp luy produit américain rek Good Life Store da koy indi fii ci biir Dakaaru Njaay ak Sénégal li ko wër pour mën leen koo jegleel euh, ci lu baax nee naa lépp loo xam ne moom mooy hygiène corporelle côté bébé Good Life Store koy def li nga xam ne ne moom mooy Listerine yi Good Life da koy jaay tey le cholestérol ak diabète bi Good Life Store da koy commercialiser ndox euh, yi nga xam ne eau de source yi grand format moyen format petit format Good Life Store da koy commercialiser euh, li nga xam ne aussi mooy eau gazeuse yi jus énergisante yeeg lépp loo xam ne ne euh, am na ci alimentation wala am na ci lépp loo xam ne mooy hygiène corporelle wala hygiène de la maison am na ci Good Life Store donc gis ngeen numéro téléphone yi ñu ngi doon ngeen adresse ngi doon affiché ku ko soxla mën nga woote fii yéen ko moom saako ceeb bi j'ai deux sacs sacs de yoo xam ne war naa ko maye en direct ndax nee naa leen Patisen 2STV Jim Production ñoo collaboré jox leen saaku ceeb yooyu noonu saaku ceeb bi nag ay 100 pour cent euh, riz blanc la brisure yoo xam ne ne muy moi ak euh, minéral donc euh, saaku ceeb yu baax naa wuyu kooku nga xam ne mu ngi duggu ci ligne bi allo allo. soxna si ça va. alhamdulilah. macha allah naka yitte yi. ñu ngi sant bu baax macha allah. macha allah tur bi naka la. Nogoy Bey. Nogoy Bey. Uh-huh. Nogoy foo ñuy woowee. Cité Fadia. Cité Fadia ana waa Cité Fadia. ñëpp ñu ngi si jàmm. noo leen def koor gi tey. ah mi ngi noonu daal tàng na. tàng na de ah. waaye sant yàlla. dégg sant yàlla bu wër léegi euh, dama bëgg Nogoy euh, nga répondre ci question yi ma posé ci euh, Kangoo Café. lan moo lan la yan couleur moo ci gën a fës. am na jaune. am na. jaune. jaune. noir. noir. ak rouge. ak rouge. donc uh-huh. couleur yooyu noonu ñoo ci gën a fas waaw euh, ñaata format la am. Euh, quatre formats la am. Uh-huh. les quatre formats yooyu waxal ma dégg. mooy trois bocaux. Euh, trois. trois bocaux yu deux cent grammes. waaw. bu cent grammes. bu cent grammes. bu cinquante grammes. bu ak benn stick de deux grammes. ak benn stick de deux grammes. Uh-huh. léegi stigu de grammes boobu ñaata lañ koy commercialiser au niveau de boutiques. 50 francs. 50 francs. waaw loolu moom dara fayul loolu kontaan naa ci yow yow it euh, répondre nga avec exactitude ci question yi ma la posé donc euh, ki nga xam ne nag euh, yow xam na laa lay offrir. Uh-huh. yow saako ceeb laa lay may. yow naa waaye may boo ma <laughs> tamit pañe bi ma jox ko sama. jox la pañe jox saako ceeb loolu nga bëgg. neex na ma. léegi xam lu may def. Euh, saaku ceeb laa lay jox léegi xam naa aussi bëgg nga ci produit pâtissier ndax xam ne ñëpp bëgg pâtissier léegi xam ñu def dama lay may ci euh, ci lave main benn dégg nga d'accord waaye bu ma mayoon pañe bi Aïcha dina baax. waaw ba tey soo ñëwee mën ko négocier rek mais xam nga léegi da wax xam nga nooy def. da ngay wax ñi nga toogal ñoom ñu woote suñu wootee suñu répondre avec exactitude ma may leen pañe. d'accord du dëgg. ok kon voilà donc yow am nga benn <laughs> saako ceeb bu coupé ñu jël sa numéro téléphone ak sa tour exact dégg nga. voilà donc au niveau de la régie ñu ngi jël euh, li nga xam ne moom mooy coordonnée exacte kooku euh, donc nee naa leen moo nekk boutique bi boutique bi daal tubarkalla macha allah lépp loo xam ne muy teraanga fii ma teg ci kaw table yi yéen a ko man fii laa koy bàyyi doyoo ko dara donc yéen lañ ko fi tegal donc émission bi yéen mbokk téléspectateurs yi yéen a moom yéen la ko waa euh, li nga xam ne moom mooy pâtissier ñoo ñuy accompagner si suñu boutique nee naa leen ñoom ñooy sponsor number one ci plateau After Ndogou donc ñoom ñoo jiite li nga xam ne ne moom mooy sponsoring bi nekk fi yor seen yu baax tey nag ñu doon wax ci li nga xam ne ne moom mooy café Kangoo euh, di leen xamal ne que ne kafe bi euh, vraiment dafa baax donc euh, aussi di ci ànd ak koo xam ne moom mooy Mobilecom di ci ànd ak ak Good Life Store donc saa su ne rek nii lañ koy doxalee chaque jour que Dieu fait incha allahu rabin dañuy ñaar di ñëw indi suñu teranga indi suñu reportage yu baax fas yéene leen jagleel donc chaque jour a chaque jour c'est comme ça man ak sama rubricard sama équipe bi sama team euh, after ndogu bi dañ leen di teral waxtaan ak yéen indil leen reetaanal leen sponsor ngi indi leen ay teraanga jagleel leen ko donc man nag euh, maa ngi remercier ki nga xam ne ne moom mooy euh, Mariam Chalar Mariam Chalar Diar fi nga xam ne ne moom mooy robe soie bi donc Mariam Chalar nag moom adresse am Sacré Cœur la numéro am di 522 11 ko ci woo incha lépp loo xam ne muy tenue rek bu leen bëgg bu yiw bu am classe soo leen demee ci Mariam Chalar di ngeen ko fa fekk may nuyu képp koo xam ne mu ngi seetaan euh, plateau after ndogu nee naa leen muy Sénégal euh, muy bitim réew que ça soit en Afrique que ça soit en Europe ak fu mu munti doon di leen jox dig daje ba suba incha allah à la même heure à surtout pas rater avec notre boutique. Adja seen safal bi ngeen tàmmu ci seen biir waañ ak épices yu naturel yi ñu ko defaree moo leen di ñaanal kooru jàmm. Adja safal bi ngeen. Orange moo leen di jox dig daje suba ak after ndëgu. Adja seen bër bi gën ci seen mburu ak seen bépp togg moo leen di ñaanal kooru jàmm. Plus que trois journées pour l'épilogue du championnat national de Ligue 1. Une kyrielle de de champion. Dans cette lutte âpre, on suivra avec le duel au entre le Stade de Mbour 5e et NGB 2e à de la 24e journée. Samedi 27 juin, Niary Tally défie